Euh, lii di jotaay bi internet yi nag tey euh, sama yaram dafay tàng jër jër jër jër bu ma gisee partage yu bëri commenté yi bëri di bàyyi seen numéro téléphone ndax waxtu wu nekk mën nañ leen ci jël may leen seen xarum tabaski xartum mbaa xaalis leneen li ci tege mooy serveur bi di 88 628 89 90 88 628 28 28 ku ci dugg rek nga jot ñu ñàkk ñoo jot mën nañu jékki-jékki taamu la may la xar xaalis mbaa xartum xartum laa koy wax waaye tusi yaa ngi fi donc ñuy nuyu bu baax a baax tamit euh, suñu nawle yi suñu xarit ak soppe yi nga xam ni ñoom la ñu bokkal plateau bi di ci euh, jiital suma xarit Oustaz Mohamed Mbaye li nga xam ni sama soppe sama cofeel ak moom daje ci rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye tamit di nuyu koo xam ne rakk la ci man xarit la ci man soppe la ci man cofeel laa am ci moom muy Aboubacry Samb moom laa tuddee le choix du peuple ndeysaan parce que tey mën naa ni métier mi muy defandoo gaa am na lu ko ci yàlla may am na innovation de taille bu am solo boo xam ne def na ko ci donc looloo tax ma tuddee ko le choix du peuple moom Aboubacry Samb waaye tamit feggoo ak ay doomi ndeyam ku ci benn xam ni ñoo bokk ndey baay mm-hmm. mu topp ci moom ñu ngi koy nuyu baax a baax di nuyu alaaji góor mi nga xam ne tey dañ koo kidnappé tey moom kidnapping la ah tey tey dafa mel ne dañoo jëlee euh, dañoo jëlee Messi xaw ma ci man équipe la nekk balaa may jaawale am ah, man équipe bi comme miinu ko waaw Messi mi ngi Paris dañoo jëlee Messi Paris indi ko équipe bu Sadio la Liverpool. jógee na sax mu ngi Bayern. moo tax bëgguma wax ci football. <laughs> ko jëlee. mu ngi Bayern léegi dañ ko jëlee PSG indi ko Bayern mu fekk si Sadio Mané. donc jotaay bi daal tey bi ñu nii. ñu ngi nuyu ñëpp. bu ko seex boo ko tuddee choix du peuple juumoo ndax ci sénégalais yi bëgg. nii euh, moom la moom la ñu euh, dalal kon tey ci samedi bi Aboubacry ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhimu sibtayni ahla mil huda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fahum sadatuna ahlul makarimi wa nada sayiduna muhammad xari colonel maa ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay di ñaan yal na yàlla yokk suñu cofeel ci bi di am mbégte bu baax a baax a baax ci yow eh, di la ñaanal suñu borom eh, gën a dëgëral taxawaay bi ba li nga bëgg a def yëpp nga def ko waaye te aussi di beral nuyoo sama grand sama xarit sama kilifa parce que bëri na ci li may dugg danaa ko parfois ne ko grand noo gisee lii wala lan laay def wala lan nga gisee yi may yi may yi may def mu nekk nit koo xamante ne wax dëgg yàlla dama am cofeel ci moom lool lool lool di alaaji Cheikh saar mu Seydina Mouhamed alaaji Cheikh Sarr international parce que moom dama koy wax ne ko yow tu es universel euh, yow tarixa yëpp lu ñoo la bëgg donc maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu oustaz Mouhamed mbay Jamil moom mi nga xamante ne euh, waaw moom moom moom ci xuloog man rek na dëkk <laughs> waaye yaakaar naa tey dinañ juboo parce que wax dëgg yàlla invité na ma fi invité waat waaye yàlla dogalu ko ah damay faral di wax ne ñaan gu sotti sonal borom loolu la ñuy wax waaw léegi nag li nga ma joxoon li ma joxoon moo nangu rek moo tax <laughs> maa ngi koy nuyu baax baax <laughs> di nuyu ñi ma àndal alaaji góora euh, comme ni ko Cheikh Sarr waxee tey man maa ko kidnappé Euh, yàlla dafa dogal ñu àndoon dem ci benn jotaay ma ne ko nag tey am na loo xamante ne sénégalais yi dinañ ci kontaan nga toog ma toog ñu béggal leen ci tele bu mag bii di euh, Sen TV euh, ñu ànd kook suñu mag ak suñu xarit El Hadj Cheikh ak yow Khady donc voilà ñu ngi nuyu ñi ñi seetaan ñëpp di bég ci invitation bi. <laughs> day fay bu baax a baax di nuyu mbooleem soppay Seydina Muhammad yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di nuyu bu baax a baax Seyid Alxaaji Cheikh Sarr mu baax mi ñaanal ko borom bi subhaanahu wa taala dolli ko dëgëral amiin yaa rabbal yàlla dolli ko dolli ko bëggloo Seydina Muhammad mi nga xam ne cofee la moo ko booleeg Muhammad nuyu la sona Khadija ziyaar la bu baax a baax nuyu Mouhamed Mbay Jamil bu sëñ Mansour Jamil bu sëñ Ahmada nuyu Ahmada Baro waaye ñu nuyu Aboubacar waaw nga xam ni moom man moom altineek ak talaata la wala ba cëg la leneen jaaru ca waaw su ma kidnappé nag am na ci plein droit <laughs> ñaanal ko ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñoo nuy seetaan moom ñi ko bëgg dañu bëgg ñi bëgg dañu bëgg Aboubacar yàlla moo ñu boole noonu ñaanal ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ñëpp yàlla dolli leen defal wér te yàlla dolli sunu cofeel ci Seydina Muhammad Adja Khadijatu ko kon nuyoom man maa koy nuyu le rek <laughs> mu goog mu ngi nuyu sénégalais yëpp <laughs> waaw moom day daa baroon ak sama rakk la mais moom daa noppi lool <laughs> moom melul ni magam sallallahu alayhi wa sallam saaxibi naasir alxaqi bilxaqi talaati alxaqi bilxaqi min alxaqi ila alxaqi xaqu xaqaiqin walxaqu xaqahu wala xaqa yaxiqu bi xaqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabia al huda bi haddiyin ila yawmi ddiini law naa sabat xadruhu ayatuhu izaman ahyasmuhu xiina yudaa daarisa rib la ilaha illa allah sayiduna muhammad ashraf al xalq sallallahu alayhi wa sallam eh, santaat yàlla mi nu ma yaat jotaay bu mel nii waaye julliwaat ci ki nga xamante ni saa su ne xool yaa ngi jéng jëm ci moom waaye rawatina guddi yi nga xam ni aj màkkaa teru na aj màkka dem Medina du farata yam màkkaay farata waaye ku dem màkka te demoo Medina dafa mel ni da ngaa lekk ceeb bu amul ndawal ndax la ko yàlla cërale cheikh faratay aj dem Medina bokk ci waaye ku dem màkk boo ñëwee ñun la anu yonent bi pavillon bu verte ba neex a bëgg laa ko tuddee nuyu mboolem koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan rawatina sunu xalifa généraux yi yàlla sàmm leen aar leen ci barke yonent ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm nuyu sama féete sama lépp xarit sama confident man Cheikh Sarr kon lu man euh, sànq ci timis lu jafe lañ doon wër après timis ay ay geewe yooyu alaaji loo doon wër <laughs> ah man de loolu ma jaaxal xoolal vingt et une heures la ma jël si mais am lu seex doon wër te lim doon wër lu mu seer seer seer seer seer paasewul fukki dërëm am na moom mujj ñu ko am parce que heure bi mu koy wër ñi koy jaay ñi ñi koy jaay ñoo laal li mu dem ba ci benn jaaykatu café di ko laaj ñi ñi eh. ni ko ndax am nga nangam baadu oustaz ba ba baadu uul uul non uul moom non uul gëj naa koo lekk mais ko ne la lan la ñuy wax linge linge sale c'est l'avant famille yow loolu mën nañ ko fóot suñu biir rek xarit non bii nii nii nii heure bii ma mënoo ko am non non damaa toog sama xel sama xel dem ci gerte caaf. <laughs> gerte gerte caaf daal laa doon wër loolu laa doon wër yàlla xam na moom lañ doon gerte caaf. ma ko ciy jàppale maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziara <laughs> sama technique la nuyu Seydatuna Xadijatu kolonel waaye nuyu Aboubacar Samb muy nekk nit ku baax la nag. Mm-hmm. nit ku nit ku bëgg boppam la. nit ku xam fi mu jëm la. Cheikhuna Tidiane dafa ni himmatul insaan xaahiratun ala jamiil akwaan nit bu dogoo lu ne ci àdduna war na koo a am parce que li yàlla bind yëpp doomu aadamaa ko moom àdduna du neex ba xar ni la damaa xiif may ma ngooñ àdduna du neex ba oto ni la may ma jàll damaa yàqamti nit rek la yàlla terale cheikh mala bu mu mënti doon nit toppandoo la ngay wax nit moo mën a toppandoo oto kon wala xadd karam naa bani aadama te foofu la teg tànkam nuyu alxaaji góor a ñang bu al nga xam ne loo jàmbaar jàmbaar bu jooyee al amin bu sa xol jooyul say rangoñ tuuru nuyu baro nuyu mboolem ko seetaan nuyu ñi nga xam ne ay laaf lañu ci man rawatina sama xarit Mamadou Yatta Saay borom Aquatera cheikh yëg passé tour bu génnee sax dem bitim réew appel normal la may woo chaque jour que jafee ndax mbaax te ànd moom li may faral di wax ni bu le nit mënalee te defalu la ko bu ba yàqoo moo ko yàq maa ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko ak sama xarit bi doon ngénte tey Mbay Jóob Jamil maa ngi ko ziar bu baax a baax xadi colonel nuyoo baa ngi noonu Cheikh ngeen euh, tàmbali waxtaan wi tàmbali émission bi le temps que man ma dem Cheikh récupérer yenn xéewal yi bu ko defee ma indil la ko nga jox ko euh, askan wi. loolu dara ñu neex. mu ngi noonu kon yéen ñi nga xam ne yéenay téléspectateurs yi te nekk ci page officielle bu Sen TV da ngeen di gën a partager di commenter di bàyyi seen numéro téléphone waxtu wu nekk mën nañu jékki-jékki capturer kenn ci yéen jox la xarum tabaski xartum mbaa xaalis su ma nee xartum nag dama ko waxee noonu rek pour mën a. riime li ma bëgg a wax waaye mën naa nekk sax ba ci euh, tissu bi nga xam ne moom laa sol muy Fusnega euh, sama xarit bi asge laa ma boutique nga xam ni wax nga dëgg de Sénégal mu nekk tissu bu neex a sol danaa joxe léegi ay numéro téléphone am waaye tamit wax tamit sama xarit bi nga xam ni moo ñu ko ñëwal mu di tubaa Gajaga nekkee HLM Grand Yoff Oustaz Mamène Mbaye Jamil jotaay bi nag ni koy def lenn la rek dëgg la mooy daal di bàyyi suñu xarit Aboubacry Samb mhm. su ko ay way bu mu ko jëmee baax na dëgg la bu mu ko jëmee baax na këru bu mu ko jëmee baax na ndax xam nga moom dafa baax di wax naan man dama yemale këru diine yëpp waaye moom it yemale na këru diine yëpp xam nañ ni mi ngi naanee ci këru Cheikh Ahmed Tidiane fale naane mm-hmm. waaye tamit jox na cër bu baax a baax waa kër Cheikhul Khadim ndeysaan barki démb la way euh, Serigne Saliou Mbacke way wu rëy woo xam ne tubaab fakal la ndeysaan képp koo xam ne soppey Serigne Saliou Mbacke nga bëgg nga ci kon oustaz Mohamed Mbaye Jamil ñu bàyyi Aboubacry Samb mu daal di ubbi jotaay bi rek ci ay wayu neex ñu daal di koy bégalee suñu téléspectateurs yi alaaju kon jeex na terrain bu jubee gaar faw mu korne Aboubacar bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baliya terewu ma la sax jug taxaw wabnayhimu <laughs> sibtayni ahla mil wuda sayyiduna muhammad bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baliya wa ibnayhimu sibtayni ahla mil wuda wa bi sahbi wa tabi'in لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى بمحمد وببنته ينتبه صلى الله عليه وسلم وبباليا وابن إيم سبتين أعلى من الهدى يا رسول الله محمد لمن وبسعبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم muhammad sa turandoo yonent bi walaay walaay nabi njol njol ka yow doomi abdalaay adnaani leeral na kawnu bi teddal na kulli insaani mbooleem teraangay a xewale yaa rasulallahi yaa ko waral cheikh fa dalika kullo xaqan li hada ni tax jinne malaayika ñëpp lay way sayyiduna muhammad cheikh neex baat bi ci daawuda taar gi ci yuusufa nguuru suleymaan bi sayyiduna muhammad moo ko waral على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسبهم على نبي وعليهم سلام ربنا دايما عام بصحبه موضوعنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دايما عام بصحبه على xadi kolonel loluy wayal yonel marabina mawdo tagg na yonen wa waajibun taatul hadi maa batuwoo kazatiba الذي ياتي من الامم ndeysaan ma Maodo na ma rabina borom santaneer bi ne la hëla alamaatu xaaloo en axzama hëte maalu sunnati hi min jumlatil ummami Cheikh Sarr sa waaji mooy yaa habiballahi ma rabbina borom santener bi ne walaysa nafuun ala hubbi bila amale wa tabi'an sunnatan muxtaari taxtanimi ala nabi wa alayhi Grand Plateau la nuy waayal maarabina daiman mami sa ana ñi bëgg yonen suma bunu aw fin wasadun saaba yango loxo yi ci kaw saaba yango loxo yi ci kaw saaba yango loxo yi ci kaw saaba yango loxo yi ci kaw saaba yango ayna mamado saaba yango ayna aliyu saaba yango ayna Omaro saaba yango loxo yi ci kaw saaba yango loxo yi ci kaw saaba yango loxo yi ci kaw saaba yango ana soppe yi Muhammadu saaba yango soppe sëñ Babakar Si ye saaba yango soppe sëñ Babakar Si ye saaba yango ku nabi jaral yamatu saaba yango ay waay nabi sama waay la ku nabi jaral محمد صابيا محمد صابيا يا رسول الله محمد صابيا يا رسول الله محمد صابيا يا رسول الله محمد صابيا يا حبيب الله يا رسول الله Sall yaa yara magal Amadou Sall moo yara magal Amadou Sall a yara magale yaa jara magal Muhammadu Sall yaa jara magal Muhammadu Sall ka tëdd ca Medina ay waay man yaa jara magal Mamadou Sarr ay ca moo jara magal ay Mamadou Sarr yaa jara magal ay Mamadou Sarr ba Mawdo nee na yaa rabbi salli alal mahmoud sayyidi na wax bal shafaatu hafina alam mudarmi bokki Samb fi mu toll nii nag yëngal nga xol yëpp. waaye tooyal nga xol yëpp. ñu ngi nuy bu baax a baax a baax suñu xarit Cheikh Mbacke Mbuub mi ñuy seetaanee jamono jii ca Italie ñu ngi nuyu suñu mbokk yi nekkee Italie di nuyu ñu nekkee France di nuyu ñu nekkee Amérique di nuyu ñi nga xam ne ñu nekk ci Afrique bi rawatina ñi nga xam ni jamono jii ñu ngi jàkkaarlook ñun di seetaan le grand plateau waajal tabaski tey nag. samedi boo xoolee daan nañ ñu min ci yeneen waaye tey dañu indi lii pour veiller ndox gaa yi bégal leen ba heure bu leen neexee bay jamil dem nañ sa waaji de xatuma na bii cheikh neexu bëgg laa ko tuddee mm-hmm. fii may waxee ak yow boo yabalul sa jëmm ji yabal sa xel Medina ñi jot a aj ak ñi ajagul cheikh lu waay dañ kumpa dañ kumpa boo duggee medinatul a bu la venteloo yi ëpp xetu cuuraay bi lay xeeñ leerug yonent yàlla Muhammad gane la sa xool yëngu say bët taa foo tëdd nelaw sallallahu alayhi wa sallam abu mm. medinatul munawara ku fa dugg ni ba kilim yi ëpp la nga jàkkaarloog barrière or yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xetu cuuraay bi dégagé dugg ci sa ay bakkan leeru yonent bi gunge la cheikh xadija mm. foo jaar say rangoñ tuuru mba sa xol fees mbaa fi nga tëdd nelaw li turam wii rëy rëy lépp boo nattee 63 ans la dund yàggu fi yàqu fi ci zahir mbaa ci baatin toog na bis ba ci yàggu mi waxtaan ak Jibril ni ko ndax mën naa laa laaj lu yàlla bind kën moo ci gën wala li yàlla bind ku tax Jibril ni ko Moustapha yow lu yàlla bind yaa tax mu ni ko lu tax li yàlla bind maa tax te njëkkumaa ñëw maam Aadama jiituma fi ci zahir mu ni ko waaye teraanga paaseetul bi ko yàlla teree garab gi mook soxnaam ba ñu attaqué lekk garab gi jooy na ati ati at xam nga lu ko yàlla baale mu ni ko déedéet mu ni ko étiquette yi nekkoon aljana ci torson yi daf ci doon gis la laa ilaha illallah muhammadu rasulullah koye boo mu gis daf ciy gis la laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bi muy jéggalu yàlla dafa ni ko maa ngi lay jéggalu sa tur ak tur wi nga boole te xaw ko fa taaba alayhi innahu wa tawaabu rahim mu ni ko budloon teg yow ci aadama dina ñaaw mu ko dama lay laaj lu tax man ma mujjee ñëw mu ni ko ñi njëkk a tëdd bi ñu tëddee bi ñu tëddee ba tey jugaguñu te boo njëkkoon a ñëw njëkk a tëdd adduna kon day gaaw a tukki waaye cofeel bu yàlla am ci yow ak sa xeet moo tax mu bàyyi aadama jiitu la Muusa jiitu la Nuux jiitu la ñëpp jiitu la ba ci Isa yàlla ni la da ngay tëdd at yu néew yowmal xiyaam taxaw nga dekk yow ak sa xeet mu ni ko dama lay laaj lu tax ñu gën a ñu ñun ñoo gën a gàtt fan aadama li mu dund bari na nuux li mu dund bari na yonent yi lu tax man yonent bi man ak sama xeet mënuñoo dund lu mat junni ceex mu ni ko xanaa xamu ne aéroport ku la ëpp bagage moo mu jee génn borom benn cartable saa yu ñëwee dañ koy xool génne ko yàlla day bañ yowmal xiyaam yow ak sa xeet seen taxawaay yàgg ndax yàlla dina wàcce jant bi ba mu tollug yuur yi waaye yow ak sa xeet li tax yàggoo leen fi gàtt fan gi ngeen gàtt fan yàlla day bañ bàkkaar yi bari dafa bëgg rek yowmal xiyaam ngeen ñëw mu lijjanti leen négocier leen ci saa si ngeen ànd ak yonent bi dugg biir mu ne ko waaye yàlla terelee na sa xeet lu mu terelewul beneen xeet yàggoo leen fi seex diggante fi ngay juddoo ak fi ngay amee soixante-dix ans yàlla may la fi nga réaliser lu ko dund junni at mënta réaliser dëgg la li muy gàtt gàtt xaj yàlla dina la fi may euh, dina la fi may ay oto dina la fi may ay milliards dina la fi may immeuble mbaa mu may la fi building boo bokkee ci xeetu yonent yàlla Muhammad ci lay gën a neex xare la ñu jugee Cheikh <laughs> Omar Ibnu Xataab dafa newoon ko am sañ-sañ yonent bi bu musaana jógee xare day nekk ci biir pour mën a noppalu yeeslu ndax ñaan gi ñaan yàlla jékki ba caag rek Omar am al Aboubacar naan ko génnal wax ak ñun kaay nga déglu jigéen ñaa ngi jooy ci seen kër yi ndax seen jëkkër yi dee nañu ci xare bi génnal nga wax ak ñun xoolal ñi ma jàkkaar loolu dëkk baa ngi fees dell ak deret gor ñii seeni tànk dagg na ñii seeni nopp dagg na ñii seeni bët lanu ñàkk ndax jam nañu ci xeet génnal nga wax ak ñun des ci biir rek Omar rek yow laay waxal de génnal nga wax ak ñun jigéen ñaa ngi jooy ci seen kër yi ndax seen jëkkër yi dee nañu ñu ngay waaj a tinj ñii ci des seen tànk yi damm na deret yaa ngi sotti ñii fëq nañ seeni bët ñii dagg nañ seen benn loxo génnal nga wax ak ñun tey nga may wax kën nga gën a bëgg weer du dee ba nu fayeeku l'islam salaire tey saa yoo wootee xare ñu ànd ak yow ni jaasi ñawee ñu àttan koo xool cofeel bi nu am ci yow ak li nga ñu dig yow mal xiyaam tax na jaasi bu départ ñu so ñu daw song ko muy dal ci sunu jëmm yi ñu mën koo muñ ànd ak yow bu nu dellusee ci kër yi faj sunu bopp boo xëyee ni ñu nañu xeexiwaat ñu toppaat la kaay nga wax ma kën nga gën a bëgg Cheikh Nabi nag ni mu meloon nga xamante ni sens bi ko yàlla teralee Khadija yonent wi xàmmeewul fu am làmp Cheikh ak fu amul làmp ni muy gisee bëccëg noonu lay gisee guddi yara bi zalma a nuurul alamina kama ala diya in yara saddix wala taximi ni muy gisee bëccëg lay gisee guddi chargé jàkkaarloog Omar ibnu Xataab ni ko Omar loo wax mu ni ko dama lay laaj kan nga gën a bëgg xoolal ñi jàkkaarloo ak yow di ay gor nga woote lislaam ñu daw topp sa ginnaaw bu xeex amee ñu daw song ñii seen tànk yaa ngi naaj ñii ñàkk nañu seeni loxo ñii seeni bët a ngi tuur jigéen ñaa ngay jooy ca kër ya di teen ji ndax seen jëkkër yi génn nañu àdduna may laaj yow kan nga gën a bëgg ci sa àdduna njool màkk ni ko Omar euh, euh, maali euh, Omar ibnu Xataab Omar ni ko ah. mu ni ko Omar am na ñuy ñëw ci sama ginnaaw ñooñu gisuñu ma gisuñu ku ma gis yéen wan naa leen preuve ba tàyyi bu ma leen won loon preuve du ngeen ma gëm waaye wan naa leen ay preuve am na fu ma jaar ak yéen dugg naa ak yéen ci àll bi wan leen moo mucjisa yu tax seen pas-pas dëgër waa Omar ñi ñëw sama ginnaaw bu ma génnee aduna nag ñoo xamante ne bu ñu tuddee sama tur dañuy jooy jël seeni i taaw bu góor soxna si ëmb juróom-ñeenti weer ordonnance buñ la jëndal nga bindu bu nu la waxee écho nga def soxna si am doom bu góor automatiquement ci sa xel nga ni sangu Makka ak Medina laa koy tuddee gisoo ko gisoo ku gis ku ko gis dan laa nettali jaloore gi ne ci moom nga am cofeelu gëm yonent yàlla Muhammad nabi ni ko Omar ibnu Xataab xam nga ni ñooñu bu ñu fekkee woon sama jamono gisuñu ma gisuñu ku gis ku ma gis jël seen taaw bu góor tuddee ma ko may nit ku weex ñuy nit ku ñuul Omar ñooñu li nu ma jaral kenn du ma ko jaral ci àdduna ñooñu dañuy ñëw sama ginnaaw ya'tuna min ba'di yu waddu ahaduhum law araani la anfaqa bi ahlihi wa maalihi ñi ngi jël seen teranga di ko def ci man ngi jël ay baas di ko baas sama tur wi di fa tudd man ni ko bu yow mal xiyaamee ñu ma mën a cëru ma leen fàtte waaye pour ma dalal sa xel yow Omar maa li ahadin lahu manzilatun fi qalbi ka abi bakrin abi bakar mi ma jàkkaar lool yàlla natt na ma ci moom wàcc waay bi mu am ci sama xol mi def dootu ko am ba yow mal xiyaam ci xam nga lu ko aboubacar amee mën di jëf xadi koy àndal ci àdduna bu ngeen dee ànd tànga tane ko te dimbali woo ko bu ànd ba yàqee bu ànd ba yàqoo yaa cheikh ki ngay àndal te mënoo koo muñal ay défaut défaut mu def nga naqarlu ko bu ànd ba yàqoo yaa ko yàq mhm. waaye yonent yàlla Muhammad tolérance la ëppale woon ñëpp mën jéggale la ëppale woon ñëpp yàlla séddoo ko ñeent ñu bokkul jikko Aboubacar Sadiq moo yor tabe <laughs> moo moo Sadiq mooy kilifa gi Omar ibnu Xataab moo yor dëgg ji Ousmane ibnu Affan mooy financé alal ji Ali ibnu Abi Talib xam-xam bi mhm. Aboubacar mooy mag mi yor xel bu rafet Omar ibnu Xataab moo yoroon dëgg ji sax di ko wax Ousmane ibnu Affan moo daan financé alalam Ali ibnu Abi Talib moo yoroon dëgg ji Cheikh tapet tapet kenn du ko may fit kenn du ko dee ba mu am fit Ali ibnu Abi Talib danaan toog ba càgg xadi colonel xelam ne ci xeex muy doxantu biir Medinatul Munawara léegi-léeg nii la def nii Medinatul Munawara Cheikh nii di dox naan ku bëgg a xeex <laughs> man la Ali rakk yonent bi la ilaha illallah maa ngi nii di dox ci mbeddu Medinatul Munawwara yi may naa leen bu fekkee ne amoo leen aabi xeex téye leen seen jaasi ma téye sama jaasi may naa la ngay dóor par ñaar muy dóor par benn ngir bëgg a xeex room nga ne xool ko dof bu mu doon ndax ko am fit koo gis ñu jiiñ la dof yonent yàlla Muhammad ñeent ñeent ñooñu cheikh mu kaadare leen def ci ñoom jikko ju rafet xam nga jëm jikko la def ci ñoom <laughs> toggulu cere <laughs> ni ni Aïcha maa ngi lay ñaan bu ma jugee bàyyi leen ñoom ñuy reer comme yonent bi fu toog ni muy gisee bëccëg lay gisee guddi boo tegee cere ji damay génn néeg bi man yonent bi waaye dof doflul ba fay lamp bi nag ñu leen reer leen bu leen ma xaar damay taal lamp bi cheikh ñu teg reer bi xam nga lu ci ne benn danga ko yàpp moo ne ci biir cere ji benn dogu yàpp cheikh ci quatre personnes Aboubacar Omar Ousmane Alioune ñu teg cere ji di ko lekk Aboubacar di lekk di lekk ba daj dogu yàpp ni may première may xaritam di soppeem xaw ma ñaata yàpp nekk ci cere ji bu ma lekkee yàpp bi muy benn bu nu taalee lamp bi ma am kersa te xam naa ni am na cofeel ci man sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar ni yalax yàpp bi bàyyi ko ci bool bi continuer lekk cere kase te ñun taaxale taaxale mhm. dem nga fi anniversaire ba taaye ñu solal la yére bu rafet nga jël fa taaye def ah Cheikh temps xale maar def na ko dem nga anniversaire u jàmbur joxe woo cadeau ñuy séddale li nu war a lekk nga jiiroo ko def sa poos mbaa ñuy saraxe góor a nga ëmb ko ci sa ay yére Aboubacar maar puus yàpp bi ngir orma ak cër bi mu jox yonent yàlla Muhammad daat nit ñi ma toogal ci bool bi de bu ma lekkee yàpp wi te ñoom lekkuñu yàpp ker sa dox sama diggante ak ñoom Aboubacar. la Omar di lekk di lekk di lekk ba daj dogu yàpp mi ni wóoruma ndax benn yàpp a fi nekk te nit ñi xamee ma dëgg te yonent yàlla Muhammad di sama soppe ma toog ci bool bu Aboubacar toog Alioune toog ci Ousmane toog ci te xaw ma ñaata yàpp ci ne naa fi bàyyi yàpp bi ku ko daj ci ñoom muy sa sago muy sa sag yàllax yàpp bi ñuy lekk di lekk ba Ousmane Ibnu Affan daj yàpp bi Ousmane bi mu dajee yàpp bi comme nitu kersa la xadi ko la ne ndax mës ngaa gis ku am kersa am kersa ba bu daan sangu day gëmm mus a gis jëmmam Ousmane Ibnu Affan am kersa ba buy sangu day gëmm Ousmane Ibnu Affan dafa am kersa ba yàlla rus ko am kersa ba yonent yi rus ko am kersa ba malaakal mawti rus ko am na kersa kersa goo xam ni malaakal mawti bu waree rey nit jotaay ba Ousmane nekk fa malaakal mawti danaan yàlla du ma dem ndax rus Ousmane Ibnu Affan Allahu akbar bi feebar na tànkam di feeñ Aboubacar bugg defaru Omar dugg defaru ko Ousmane di dugg mu maasale ko ñu ni ko lu tax nga defar ko mu ni yàllaa ko rus malaaka yi ko aw ma lu dul rus Ousmane ibnu Affan ndax ni mu mel Ousmane buux yàpp bi ñuy lekk di lekk ba Ali Abi Talib daj yàpp bi ni man may caat ci groupe bi rakk laa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma ko sagalul kenn du ko sagal ci benn dogu yàpp moo ne ci bool bi xoolal dogu yàpp bi seen ginnaaw loxo yi di ko wër di laal ñuy lekk cere ji di lekk cere ji ba cere ji ba kenn ku ne suur yonent yàlla Muhammad duggulu tàllu isa lamp bi Aïsa taal ko mu xool dogu yàpp bi muy benn mu ne ko lii laa bëggoon ci yéen asxaabi kan nujum bi ay muxtadaytu muxtadaytu lii laa bëggoon ngeen àndee ko sincérité bi wax ma fu amati Cheikh benn dogo yàpp quatre personnes tim ko di lekk di di tëb bi foo ko gis. léegi nag gars yi dañuy gars yi dañuy dagg di suul. <laughs> Ah. léegi ndab yi. wax nga lu yàgg. léegi ndab ah. wax nga lu ma miin. ga yi boo fekk ak ñoom ndabu guddi. dañuy dagg di suul. dëgg la de bu ñu jubee suuf su baax suuf su baax bu ñu daggee ba xam ni suuf si suuf su baax la dañuy gas suul. wala nen yi. nen jën. <laughs> waaw. doom ko na anniversaire waaye ñu joxe ay fataaya ak ak ak li ñuy saaf muy muy muy. Euh, crevette ndax moo xewoon. lu yàgg. lu yàgg la lay wax. nga jël crevette bi. Euh, fataaya yi def ci sa poos. waaw yére bu rafet génn doog koy doog a lekk. dëgg la. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. xadi colonel xanaa kontaan nga. bu baax ñu ngi jaamu de. xol te xol yëpp a feex daanaka ndax ci commentaire yi également. wallaay ndeysaan loolu la ñu euh, nemmeeku que nit si ñu ngi koy wax. wallaay ndeysaan mi ngi noonu euh, ñu fàttali rek ne xadi ñu ngi ànd ak suñu sponsor yi nga xam ñoo ñuy gunge ci euh, grand plateau waajal tabaski bi. donc ñuy wax rek que ni ñu ngi ànd ak transfert d' bi nga xam ni yombal na ko askan wi ci yónnee ak jot xaalis waaye tamit ci mën a tera ak teraanga goo xam ni tubaar fa kàlla ñëpp xam nañ ko mu di wave kon man ngeen euh, dugg nag di euh, jëfandikoo li nga xam ne moo di code marchand yeeg ñoom seen wala boog ngeen scanner li nga xam ne moom ngeen di gis noonu ci écran bi su boobaa yéen ñi nga xam da ngeen di dugg ci taxi wala boog di jënd kafe wala boog fu ngeen di mën a euh, jokkalante wàllu xaalis rek ngeen koy jaarale ci lii di Wave su boobaa fii ba le huit juillet di ngeen mën a bokk ci ñi nga xam ni dañ leen di jox enveloppe bu cent mille francs ànd ak Wave en tout cas sàmm sa alal teel ko ba mu gën a ñoŋ ak Wave bu ñu jógee ci Wave tamit dañu ànd ak Ecobank Ecobank bi nga xam ni banque la boo xam ni banque internationale la banque la boo xam ni banque panafricaine la banque la boo xam ni dina la saytu sa alal waaye tamit teg la ci ay yoon ba nga mën ko sàmm ba ma gën ba mu gën a mën a ñoŋ loolu nag yaa ngi ko mën a am ci euh, banque bi nga xam ni moo di Ecobank bu ñu jógee ci loolu diwaan décor kër gu ci nekk da ngay bëgg toor fa kàll fa duggee ñu fekk fa ay meubles yu rafet li ko dalee ci buntu kër gi ñëw ba ci salle bi ba ci douche yi waaye tamit ba ci lal bi ngay tëdd ñu décorer la ko ba kër gi rafet loolu ba boo duggee da ngay xam ni kër gii kat borom kër gi naatal na ko ànd caag diwaan décor. Eh, te xam ku gis lu ñu def plateau bi sax xam ne euh, décoration moom seen yëf la. ala daw mel ne te yàññ na. Mhm. kon yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg di décorer seen i kër ak seen i bureau ak fu mu mën a doon ngeen bëgg ko décorer ànd leen ak diwaan décor rawatina ci tabaski bi nga xam ne moom la ñu dëgmal téléspectateur u Sen TV yéen it may nañu leen ngeen di woote ci 88. 628 89 90 88 628 28 28 ndax ku nekk it da ngay am sa sponsor euh, téléspectateurs yi yéen seen TV mooy seen sponsor ngir mën leen taxawu ci tabaski bi ngeen mën a am xaalis am xartum am xarum tabaski jamono ji ñu nekk nii borom kër yi nelawatuñu kenn ku ci nekk yaa ngi xool naka nga mën a amee xarum tabaski naam sax cher na waaye Dmedia dina ko yombal ba kenn ku ci nekk mën a jot xarum tabaski mën a tabaskee ni nga ko bëggee ndax nag faratala boo xam ne yàllaa ñu ko digal waaye digal nu ko ñu demee ci ak xel te bañ ci demee bëgg-bëggu ëpp mbaa ak xol ba ëllëg nga am ci ak daan ku def li nga mën def loo man wax loo mën boo tëddee nelaw loolu da cay gën waaye nekk benn soxna su mel na xadi colonel rek muy doxee muy doxee colonel di doxee général bi ni la xar gu mat mbaam a génn xar dugg mbaam a génn Eh, nag oustaz Mamène Mbaye fan yëpp ma ngi gis nga koy waxtaane nit ñi bu ñu xamee dëgg-dëgg dayu tabeski ak fa mu jóge kenn du ci sañaxal sa borom kër yow mii jigéen yaa koy oyofal ba mu oyof toy naan ko nijaay demee ci xel nijaay demee ci jamono jamono métti na digg digg euh, nuñ koy waxee di digg ginnaaw borom kër doonatul mbër dem nañ ba gétt ga ak gàtt ga kenn muntu leen ràññ nga gis ne kon jamono métti na waaye tamit soxna si la yàlla booleel ci biir kër gi moo la mën a oyofalal bépp yan bu ñëw mhm. ba mel ni ka ma bàyyi ca kër gi muy madame Sarr kenn du moom madame Sarr maa la gën a bëgg fi <laughs> bari na jaaw ko bari na jabar ju bari wax moo la ko teg eh? jigéen ñoo am eh. jigéen bu yor jikkoy jikkoy ginaar mhm. ak jigéen bu yor jikkoy bëy mhm. ak jigéen bu yor jikkoy xar ak jigéen ju yor jikkoy nag ah. Cheikh ñeenti jigéen am jigéen ju yor koy ginaar. ak jigéen ju yor jikkoy bëy. Mhm. ak jigéen ju yor jikkoy xar ak jigéen ju yor jikkoy nag. doo ci laaj benn bu ne nu muy def. jigéen ju yor jikkoy bëy nu muy def. <laughs> jigéen ju yor jikkoy ginaar mooy jigéen ji nga xam ni. jëkkëram da koy jox journée trois mille francs. Mhm. jëkkër ji dem ñëw journée bi neex. Mhm. jëkkëram may ko cinq mille. ñaata la daan dépense oo. 3000 du 3000. Mhm. am na bénéfice ñaata. 2000 2000 du 2000. mu ah. dem marché ñëw di ñaan jëkkëram juróomi jënde jëndee almet mooy mooy jabar ju baadoo la. la ilaha ginaar ngay defar cox seex ci palaat. ilee mu séree lekk ko da koy cof muy wadd ci suuf. nga jéppi ko nangu palaat bi mu doogoy sérieux di boole suuf su xajam ak pepp loolu mooy kës ah <laughs> kës mooy kës am jigéen ñu yor ji koy bëy <laughs> seex moytul ma jabar ju bari wax bari na ko tappeem xotteeku bari wax a ko ko teg parce que jigéen bu baree wax ay tànkam du ñu am seex jigéen du bari wax mooy doxee nii nii nii nii nii Cheikh moom da war a gaaw lijjanti xoola waaxu yooyu dagg tappi bi Cheikh ndax jabar ju bari wax loolu jabar ju bari wax buy dox xoolal bi parce que bu baree wax dootul am contrôle Cheikh <laughs> nii rek lay waaxoo war ngaa jub ci xaru de ba léegi xale yi seen def jàpp bi di xotteeku ba dugg ci rondal. jabaru góoro noonu la mel. xoolal bëy. eh jabaru nitu àjjana eh, waaw xoolal bëy. seex eh. bëy kenn attanul yuuxoom. déedéet wax rek. ñaari ndeewam dong bu ko defee nga bëgg koo ñaan. te te te bëy li tax mu bari wax bu gisee paaka dootul am jàmm seex. dina hmm. wan ni waa koñ bi yëpp maa ngi waaja a waaye balaa may dee ngeen xam ne ñun suñu waa kër ñun bëy lan rey. wallaay dëgg la. xadi am jigéen ñu yor jikkoy xar mooy jigéen joo xam ne foo ko fekk seex vax lay woddoo Mhm. tiseetu politicien lay sol. <laughs> xaritum lay teg ci kaw bopp bi. ak tiseetu promotion. promotion lay sol. wala mu sol boo xala foo ko fekk tiseet lay sol. wala mayo rek. du sol wala mu sol mayo. te mbisi lañ gën a nennu. wala nekk mbisi la ñuy sol. jigéen ñi bu wax la ñu yor ji koy xar. seex jigéen ñu yor ji koy xar. ça sérieux. boo sol daal luy baax. te dañuy nekk ci biir sëy de. seex jigéen yor ji koy xar. Mhm. mooy xëy suba ba ngoon. foo ko fekk ñaar la bu jugee novelas mu ngi dugg ci waañ bi bu ñemee ñëw na toogaat ku mu gis ngay romb ci kon bi danaa la xoolal ma sama cin li fu mu toll seex ji kon jigéen yor ji koy xar moom nga yónni am ay gan yónni ko boisson mhm. mun la bu may jënd nga xëcc nob bi ba mu ñëw man bii wala ma bañ a publicité bu génn ba ci bit ni la ni jaay ban nga waxati da ngay mujjee énervé wu ni ko jëndal gazel <laughs> seex jigéen joor ju koy xar bu tëdd jotee tant que téewoo ci loxo bi ni ko kañ ànd tëdd ñun ñaar du tëdd seex jigéen joor ju xar foo ko fekk soble lay xeeñ oustaz nag yaa ngi tooñ jigéen ñi tey nag dooma laaj ak den jigéen xoolal xoolal xar seex mosoo gis mukk oto fiir bëy wala raar na oto saa fiir rek xar lay fay lay fiir mais seex jigéen piir dayor ji koy nag kàddoom day néew jëfam bari seex nag mu soo dégg mu jàmbat du la jàmbat xiif nag du la jàmbat mar doylu na ba loo ko jox pare na ci bu guddee am na fayda ju toll ni góor moom mu taxaw nga xam ne naga nga fa mu toog xam ne naba naga nga fa <laughs> silmaxa buy dox ba dugg ci koñ nga ni moytul nag la lu mu yaaxamti yaaxamti dina ne booy kaay jàllale ba alors li <laughs> mais jigéen dëgg <laughs> cheikh jigéen dëgg euh. noonu lay mel sa jëkkër di dem di ñëw nga ni ko eh tabaski sunna la defal nànk bul ci rey sa bopp dëgg la xaru tabaski la xoolal lu tolloo ak sa poos xam nga lu ma lay bañal nga lépp loo mënul ñu lay taxaw te gor kenn du ko taxaw dëgg la cheikh yabeel ci àdduna ñaara koy indi di jëw nit ba mu bett la mhm. te jëwkat li tax mu ñàkk jom da lay jëw ba nga bett ko mun la yaa bëgg sa tur la doon waxtaani wallaay dëgg la <laughs> cheikh ñaar la la bor di yabe ngay mhm. jëw nit ba mu bett la ak nga yoreel nit bortu koo fay mhm. day jékk ba caag mu message bi ne la xamoo couleur bu la ko waxee rek am na luy dugg seen diggante dabar wax ak yow ci njëkk ak teranga xoolal xar mi nga tollool nga jënd ko te molo bu juróom benn weer man am naa yére yu ma yor ñu ngi ci biir tabaski yàggul ñaaniwu ma ndéwénal dew ma fenn aw ma jot mhm. damay togg ci kër gi demuñu fenn ñun ñaar sama yére bi nga ma ñawaloon mën naa koo sol ay dëgg la pombiteer nañu xool bi gën a yomb nañ ko jënd ni jaay nañu jënd soble nangam xar mi dëkk bi neexul ni jaay bu fi yàpp bi gënee bari te amuñu frigo kër lañ koy dénk mhm. tabaski le 10 lay tombel da war a fay da ngaa war a fay ndox war a fay courant. jàngum xale yi doom yu jigéen. tubaab fa war a defaral ñoom ñëpp. te xale-xale la bu gisee moroomam rek gis moroomam nañu xool nu xale yi jage ndax ñoom bu ñu génnee dajeg seen ay morom kontaan kun waxul li ci biir kër gi du ko xam te biir du fen lii laa lay jàppalee góor goo ko wax bu tëddee gént waaye góor goo xamante ni tabaski des na 10 jours foo ko tegee loxo mun la teggi daa bëgg a xuloog yow te am na ñoo xam ne lu ñu am ci àdduna ñu tëj leen bala diis jàll moo leen ko gën a doxalal <laughs> oustaz tey moom mayoo jigéen ñi dara non am na góor ñoo xam ni policier la ñuy cokkaas pour ñu tëj leen dix jours. waaye tamit waaye tamit oustaz oustaz tamit am na am na am na euh, yal na yàlla musal suñu jigéen yi. Mhm. ñu am borom kër yu nay. Ah. borom kër gu nay baaxut. borom kër du nay ci njabootam. Mhm. borom kër da ngay nap ci sa njaboot. Mhm. des fois nga say borom kër goo xamante ni si même boo dee sangu sax danaan la sas bi de ko wàññi. ah yow boo boo boo économie boo xoolee li nga sangoo pare dina mat ñetti paan. booy sangu day taxaw ci bun duus bi naan la tëjal sas bi li ngay ndox mi li nga utiliser bëri na day dem ba di la day dem ba di la calculer sax ci saabu bi ngay sangoo day dem ba di ko dagg naan la sangoo lii bu jeexee ma jox la li ci des dem ba booy dugg ci waañ bi da lay contrôler ji góor gu nay noonu lay def. mais mais am na góor ñoo xamante ni. ah kenn liggéeyu leen. cat jàpp leen seen àqu soxna moo leen jàpp. yonent bi bu demee ba xam nga arafa ngi ñëw. Mhm. bisu arafa mu taxaw ba ci kaw moom yonent bi. ni fattaqullaha fi nisaikum wastawsu bihinna xayra ragal leen yàlla ci seen ay jigéen. Mm. da ngeen di dénkante ak ñoom teraanga. dëgg la tubaab ñu baal ma ci kàddu bi bu jabaram amee doom léegi mu biisu ko léegi. dëgg la tubaab bu soxnaam amee doom léegi mu biisu ko léegi. xanaa xamoo ni oto bu la bu nga gis góor ak jigéen di reet di reetaan kenn ku ne di kaf di ree yàlla seede ni duñ jëkkër ak jabar xam nga ay lan lañ. Mm. ay farak gel <laughs> non oustaz am na rek jamono mais oto boobu gis ku góor ki teg fi benn loxo bi da daawalee benn loxo ndaw si def nii ak benn sànkam bi di sinab xamal ni jëkkër ak jabar lañ Sénégal xam nga lu nu mën si yàlla <laughs> waaye jëkkër ak jabar moom ñi ci aay bariwul <laughs> ban ndoxaan la ñu gën a mën kësëy non buñ lay doxaan seex dañuy téye sa loxo ci volant bi dan ma koo nettali nag lii ma lay wax ah. dan ma koo ne maara ma ko nettali ak papis bodian nee nañ xolal ba pare seex góor li tax mu garaaw bu la takkagul da lay ñett bu la takkee xadi day nangu ñett yi. muy lan góor bu la takkagul da lay dugal ligne. 24 heures sur 24 yéen ngeen wax téléphone. xadi colonel góor bu la takkagul day bëgg fu muy dem ngeen ànd booy bu dee defoo dara ma jaar fa waaye nga gunge ma. xadi colonel góor bu la takkagul day bëgg nga koy laaj mu lay jox góor ñëpp ñi amagul soxna te bëgg ku leen tagg xam nañu fast food yi xam na nañu may ga yi ñoom dañuy jëndal xale jigéen fas fast food tourné jëndal seen bopp may ga waaw léegi tu waaw léegi lu tax góor bu la takkee boo boo boo soloo muy waaj dem nga ko foo jëm xale yi ku leen di te teel koo toogloo te da nga daan def fu muy dem ngeen ànd seex góor bu la takkee danaan la bu may wax dooma tontu gis nga maay sa kilifa góor du ko wax daf koy jëf ci biir këram góor foo dégg mu naan du ma sa morom maay sa kilifa seex mat kilifa cër la de waaye eh. mën jaboote jagle yàlla la góor dootul nangu muy wax ngay tontu seex góor bu lay jox ba ngeen am benn doom yàlla boo am soxna soo xamante ni dafa ñemee laaj njegu kuus da ngay dem ba da lay énervé ndax am na laaj yoo xam ne day énervé borom bitig bu jàppanteeg nelaw ah, seex nga yee ko ba mu yeewu nga ko jaay ma puso bu la mënoon a xoj da lay xoj <laughs> ak kuus moom mënul xaar <laughs> non borom bitig bu dem ba jàppanteeg genre sieste yooyu def nii Oustaz jégal ñu jël. dañ jaay ma puso. waaye jël nañ parole bi yow léegi. <laughs> xadi. <laughs> Cheikh nangu nañu parole bi est-ce que duñu dem ci Dóor waar dellu si waat ci. am nañu dem Dóor waar oustaz <laughs> tey sëree woo <laughs> ñu dem seeti Mbaye Karim xool la ñu indil tey kon. merci beaucoup Khady colonel maa ngi lay nuyu baax a baax de jox sa wàccuwaay tey nag euh, li nga xam ne mooy lu ma xar yi tey dinoo déplacé wu ñëw fa xam ne mooy rond point Masalikul Jinaan waaye nag tey euh, dafa xaw a spécial ndax euh, dañ daan gis ni lu ma xar ay góor rek laa doon jël waaye tey damaa ñëw fekk si fi nga xam ne moom mooy ci rond point Masalikul Jinaan Mama Africa Mama Africa mouton <laughs> waaw man la Africa mouton fii ci ah. Masalikul Jinaan mais bu fekkee cassation la. Ah. Mama Africa poisson la. poisson mais li ma jaaxal mooy. Ah. da ngaa bàyyi jëni ñëw ci <laughs> ci ndawal li. waaw mais jëni ñooy ni ndawal li. waaw waaw parce que macha allah jëni lañ dóore waar ba am lu ñu mën a jëndee ndawal li. waaw. ok ba tey nag gis ngeen ñu ngi nii maa ngi ànd ma daan yi suma xarit bi tubaarkàlla yàlla sa jàmm yàgg ba dinaa Medina rek la bëgg def la ko ci xolam maa ngi lay siyaar baax euh, ma daan yi ba tey nañ ñëw ci waxtaan bi Mame Africa ah. pourquoi le choix jaay xar parce que tamit ñu gisul man ba ma dara ñëw luuma maa ngi doog jël jigéen boo xam ne day jaay waaw xam nga bon fi mu toll nii dañ toll jamono joo xam ni dóor waar rek a wóor daal amul loo xam ni góor war na ko mën te jigéen du ko mën actuellement nii parce que dañ dépassé foofu romb nañ foofu actuellement nii mhm. moo tax moom dama yàgg ci xari daal waaw depuis kañ depuis kañ nga commencé. bon yàgg na yàgg na yàgg na bi may commencé ci xari boobu maa ngi dëkk Medina te ma jógee Medina ak léegi bopp war naa def dix ans. chaque année damay def opération. Uh-huh. waaw. ati ñu ñëw ci xar yi euh, naka mu ba mi ngi dox. waaw macha allah. Hmm. waaw. jaay gum nga benn xar ñaar. waaw waaw ñu ngi jaay ndànk ndànk waaw ñu ngi dem ndànk ndànk waaw. ati ñu ñëw bi nga tiim lu muy jar. ban bii. waaw bii moom ku ma fay 200 ma jaay la. Ah, ma daan jëlal bii 200 lay jar cher <laughs> na de. Ah, ah waaw ak rek. <laughs> waaw ak waxaale rek. nan doxal ci daral bi nga wax ma mais bi fi gën a cher lu muy jar. waaw bi fi gën a cher mooy yu mag yi. atiwa Madane ñëwal Madane laa àndal borom Medina ah, tubarkal ñaata lay jar bu bi bi moo gën a moo gën a cher bii la. moom xaw naa cher. ñaata lay jar waaw ah, moom ku ma. waaw téyel bi mu jóg yëkkatil mu jóg ñoo xam kay. ah tubaarkàlla yëkkatil ko waaw ku baax ki jërëjëf. la <laughs> muy jar bi. waaw bi moom ku ma fay 500 ma jaay la ko. ah 500000. waaw. xadi colonel ñaar fukki ju <laughs> dégg nga de <laughs> dégg nga de téeméeri junni lay jar. tubarkala téeméeri junni dara yombatul parce que fi mu toll nii xont bi ñuy xont xar yi rek fi mu toll nii mhm. ku teg saxaar xar fi toll nii di ko jaay yaa ngi xalaat ndax yow sa jëm boobu boo jaay pare di nga génn mhm. di nga ci génn parce que xont bi metti na trop trop trop waaw xont bi cher na trop trop liñ ci naa gis naa aussi ñu ngeen jël euh, di ko dagg di ko def ci euh, di ci li ñam yi euh, li li xar mi lekk Cheikh Sarr moo ma yóbbante nee la ba ba dóor kii di jeex lu may jeex heure bu ma demee dinaa ko laaj njariñu carton ci xar waa njariñu carton ci xar xam nga ku nekk ak ah, li nga tàmm jox say xar daal. Mhm. waaw. yow yow da nga joxe carton. non man samay xar nag tàmmalu leen carton man samay xar dama leen tàmmal di leen jox repas bi mélange bi daal laa leen tàmmal di jox. Ah. ak ngooñ. macha allah waaw. am na solo ñu doxantuwaat xool bi bi ci gën a yemamaay ñaata lay jar bi ci gën a bii bii bii ñaata. bi jar moom. bii a ku fay deux cent quarante ma la. deux cent quarante mille. ma daani gis nga. bi deux cent quarante mille lay jar macha allah mais bi fi gën a néew prix ñaata lay jar. bon bi fi gën a néew prix am naa ba cent am naa ba ay cent quarante. cent quarante bi ndax ñëpp lañ fi nekkal ah ma daan ñëpp ñëpp lañ fi nekkal ku jënd bu trois cent ku jënd bu cent ah. te jigéen ñi laa fi nekkal. ñëwal ñëwal bi jar bi jar cent et quelque ndax tamit euh, askanu Sénégal. dëkk bi daa metti ah. ANCAR <laughs> bi bu la fay sang doo ma ko jaay. non sang nag moom fi mu toll nii xaru sang est-ce que am na ren. Ah, amul xaru sang. non gaw ma ne ga xaru sang. parce que bee bee mu yor nag. mais bi ay cent quarante aussi. cent quarante ah kon loo cent quarante moo nekk. waaw waaw. loo 140 bi moo nekk nii. ci gis nga mi ngi noonu war nañu xar muy jar 200000 euh, war nañu aussi boo xam ne day jar 500000 ak euh, boo xam ne day jar 140000 mu doon lu am solo Mama Africa naka la fi nekkin bi ba amuñu fi benn jafe-jafe. amuñu benn jafe-jafe gaa moom amuñu benn jafe-jafe. Hmm. Euh, waaw lamp yi leer na ndox mi ñëw na leer na ndox am na waa macha allah daal. Hmm. amuñu benn problème. te bon aussi ñi ma fi teg ay jàmbaar lañu. Hmm. sama jàmbaaru daral gaa ngi. daa am ñoo jël di leen fay. waaw ah macha allah. am na solo léegi ñu bàyyi la rek euh, looy wax xadi colonel bu ko defee ñu tàggu. waaw xadi colonel daal li ma koy wax man daal jigéen ñi laa fi nekkal. <laughs> en tant que jigéen ah? waaw en tant que jigéen. li may def nag dama ko gëm bëgg ko ci sama xol. moo tax ma di ko def daal. macha waaw am na solo waaw. acca jàmbaar ci waar wa jigéen day góorgóorlu ah jigéen eh, day day day day day day jàmbaare tubaarkàlla mel ni suñu yaay ji macha allah ñu koy bëggee bu baax a baax waaw. tuuti aussi lu ma ci bëgg a teg parce bon ndem si yàlla gi daba booy. Mhm. dama ko daan jox xar. sama doomu ndey la woon. macha allah mosuma réer ak moom ci dara. Oh. ba semaine bi muy gaañu sama place fa ñu toog waxtaan lu yàgg. ba ma wax ak moom ci xar mi ma ko war a jox. xar mi nag yéene la. xar mi yéene la mais bu soobee yàlla yonante bi dama koy yóbbul yaay. xar mi mi ngi ci daral wala mi ngi kër ga. maa ngi fii ci daral bi. maa ngi ci daral bi eh, nan dem ñu woon xarit Daba Boye tubaarkàlla eh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy jàll waa waa moom suma xarit la woon ñu nekkoon converge eh, fi nga xam ni mooy Convergence FM tubaarkàlla jëlal ma ma daani xarit Daba Boye ndeysaan li am na solo lool Mama Africa jërëjëf ñu ngi lay jaa jëfal am na solo waaw nit ku baax la woon nag man fu ma toll maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare aljana fa mu jëm yàlla na ko gën a fi waaw fa mu tëdd xolam sedd na tëdd yàlla na ko yàlla yërëm daal nit la woon daal man sama waay la woon ndeysaan bëgg na bëgg nañu lool ci yow sama waay la woon franchement parler mhm. li ma gënaloon nag yàlla suñu borom bi nag mooy def lu ko neex su ma amoon li ma gënal moom ci jëm boppam moo doon jël si xaram mii comme ni mu ko jël see woon daaw mais ren lii la yàlla dogal daal waaw li yàlla dogal kenn mënu ci dara mais ba léegi yéene bi daal dina mat incha allahu rabbuka waaw en tout cas jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax Maman Africa ma daan la àndaloon ñu ngi koy bëggee baax wallaay. Mm. Mm-hmm. wallaay tubar fa kàll ñu feddilwaat suñu kóllëre ci ajara mi nga xam ni tubar fa kàll àndoon nañu ànd bu rafet ba tàqalikoo ci dund gi eh, yal na yàlla boole kook Fatmata bintu yaa rasulillahi sallallahu alayhi mu wëttale ko ci aljani gën yaa kawe ñu ngi yeesalaat suñu eh, njaal ci njabootam gépp gépp gépp soxna si li mu def nii ñun la ko defal ñun waa D-Média la ko defal ñu ngi koy encouragé bu baax a baax tamit ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def lii day wane rek que ni jigéen ñaa ngi fépp fu góor di teg tànkam rek boo xoolee jigéeni Sénégal ña nga fa loolu lépp ngir seen njàmbarte léeg-léeg bàyyi teel a génn àdduna bàyyi ñook yaay yaay dal di jël musóor takk ci ndiggam jóg ne njaboot gi bàyyi dem na tey waaye maa leen di yor waaye léeg nga gis jigéen ju jàmbaare lool nekk ak borom këram ci biir kër gi guddeeg bëccëg mi ngi daw di indi ci kër gi waaye du ko mës a borom kër loolu nag yàlla baaxee nañu jigéen ñu mel noonu Sénégal nag muy réew moo xam ni réew mu metti la ci jigéen buñ ko waxee buñ ko waxul naam sax parité baa ngi daw waaye sëy Sénégal dafa metti trop trop trop trop ci jigéen jigéen mooy sëy ak borom këram waaye tey day am lu bëri lu koy war da ngay sëy sa borom kër di sëy ak say rakki borom kër di sëy say goro xarit ak wujji peccor ga ci jigéenu Sénégal rek nga koy gis tey jii dem nañ ba sax sunu euh, xarit tabaski jël nañ ko def ay pàcc pàcc loolu lépp toppi aada loolu léppi toppi sax ba topp maanaam ay cëri jigéen joxe ay baatu baatu bàjjan ak tànki njëkkeeg fàll reen jaay ak euh, maanaam euh, resu resu borom kër ak xarum yëpp dañ ko séddale ba aada daal ni mu def ci xaru tabaski loolu xam naa oustaz Mohamed Mbaye Jamil dana ci dana ci wax léegi ñu gën ko waxtaane pour nit ñi xam ni jaamu yàlla la waaye nekkul jaamu yàlla goo xam ni dañuy jël aada fesal ko ci ba aada bëgg nangu tabaski waaw wallaay ndeysaan wallaay allah gis naa depuis bu GP Tabaski commencé ni ngay def donc te laa ne xam nga def rouge bi rek ñëw faylu la en tout cas c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous namoon la lool grand cher nuyu naa la bu baax a baax. maa ngi lay fay sama rakku xol wàccuwaay comme d'habitude alkaati du bàyyi doo rek noonu nga daal di def rek sañse bi rafet na. merci nuyu oustaz Mouhamed Mbaye sama sang bi sama sëriñ macha allah waaye tamit euh, nuyu ñaar ñi nga xamante ne ñoom samay frère lañu. Mm-hmm. ñoom maa leen bëggal sama bopp mm-hmm. boole leen ci man. ndax ñoo bokk tarixa bi bokk mhm. lu bëree bëri mhm. macha allah muy Aboubacary Samb mon frère ça fait ah plaisir de ah te voir c'est partagé bienvenue biir Sen TV waaye sëñ góora moom itamit moom sama càmmiñ la sama xarit la dafa sànq ñu ngi ay faama <laughs> ay góora waaye xamante ne ñu nuyu naa la bu baax a baax Baro Samb moom itamit maa ngi lay nuyu mon frère nuyu fidèle téléspectateurs yi ñuy seetaan xaji euh, ba ci kanam rek ñu yaatal ci loo xamante ne dafa indispensable des fois ñu sànni ñu ci xeer ñun jigéen ñi ne suñu posé grand cher defar suñuy wee def suñuy xef bu ñuy lakk du ñu gis lu ñuy lakk. bu ñuy piqué du ñu gis lu ñuy def te tabaski la ñu wax. dégg naa foog nag euh, ci taaru jigéen la bokk. Ah. ba ci kanamee ñu gën cee yaatal incha allah. ak seen <laughs> seen seen xefu 3D ak ñoom seen. waaw gis nga <laughs> loolu danañ ci wax de danañ ci wax. neex na la de dina neex na ah. neex na ma sax waaye nag xam nga nag euh, bokk ak. léeg-léeg xam nga bu njëkk sax oustaz Mamem Mbaye dafa am am am solo lu mu wax. Uh-huh. Eh, ci jigéen ñi ak melokaanu jigéen. xam nga Aboubacry Samb bu njëkk. Uh-huh. ci mbëggeelu njëkk ya. Uh-huh. boo daan génn ak jigéen da ngeen daan dem resto sax yaa koy commandeel te boo commandé sax du ko lekk. léegi da ngay ànd ak jigéen resto boobu dañ daan wax ni mbëggeel gi da daan jur sax ba bu ngeen toogee di lekk sax. du lekk bu baax waaye léegi da ngay ànd ak jigéen ngeen toog resto mm. moo naan waaye ga na kii ñëw gaaw man damaa xiif boo ñëwee mu lekk commande am lekk sa commande emporté yóbbu billaahi <laughs> yaay rey léegi comme li may tooñee sama sama sama sama jabar ji maram Sarr bu ñu bokk nooy fa mu wax de loolu dama koy loolu dama koy wax direct léegi léegi léegi da ngay bokk ak sa jabar sax palaat balaa lay tegal dëgg dëgg dëgg balaa lay tegal dëgg dëgg ngeen dem ba ngeen dem ba ngeen dem ba commencé jot di jot ndigg ndigg ndab li uh-huh. bu dee ginaar da ngeen koy xëccoo uh-huh. da ngay téye laaf mu téye pooj léegi xale yi jigéen li dañuy toog ak seen jëkkër yi duñ tal sax duñ tal sax tegal seen jëkkër yi daal mais dañuy xëccoog yow ah madame Sarr noonu lay def non loolu mën ma ko wax direct <laughs> madame Sarr sama xarit la de madame Sarr ah, madame Sarr mën naa togg togg yu neex. Mm. mën na koo yàq tubaar fa kàll waaye bu ngeen toogee ci ndab <laughs> bu la commencé tegal rek mooy fi xelam di dalee foofu moom dina ko di la tegal ndànk ma naan ko ba sa xel dalee wax ay yéeme na ah. <laughs> Oustaz doo ñu bàyyi Oustaz sa micro de. Oustaz nañ nañ bàyyi jigéen ñi rek nañ bàyyi jigéen ñi tey tey tey leen doomu bàjjane mais nañ leen bàyyi nag. ay ja xadi ñu fàttaliwaat internet yi nga xam ne ñu ngi ci page officielle bu Sen TV rek da ngeen di gën a partagé di gën a commenté te su ngeen di commenté ngeen bàyyi seen numéro téléphone na waxtu wu nekk mën nañ leen capturer may leen xarum tabaski may leen xaalis wala boog jox leen lu ngeen koy toggee ñu fàttali leen tamit ci serveur yi mën ngeen continuer di woote ci 88 628 89 90 88 628 28 28 bu ngeen ñu jotee ñàkk ñoo jot mën nañu jékki-jékki tamit taamu seen numéro téléphone may leen xarum tabaski jox leen enveloppe xaalis. Mhm. wala boog it nag la ngeen koy toggee loolu lépp am na fi. Euh, ci euh, Sen TV télé bi nga xam ne mooy xalaat askanam rawatina téléspectateurs yi xadi xanaa ñu delloowaat euh, yëf yi rek ak Aboubacarine Samb. le choix du peuple. bis naka tey de leen ko tuddee le choix du peuple. leer xale yi bëgg nañ ko. ndeysaan ndaw ñi bëgg nañ ko. mag ñi bëgg nañ ko. kilifa diine yi bëgg nañ ko. te dafa ñëw moderniser li nga xam ni moom moo di euh, daara ji. da ko moderniser wane ni dañu war a doxee élégance éloquence dañu war a doxee feeling te loolu la nit bëgg bu ko soppi de. ndeysaan ndeysaan réew mi bëgg nañ la torop. yaay choix du peuple. ndeysaan waaw sama téléphone nag. Hmm. daanaka mu ngi mu ngi toj depuis sànq ba léegi. waaw ñi ñaa ngi message rek choix du peuple choix du peuple waaye yëpp ñu ngi koy jëlaat rek. Hmm. di leen ko joxaat te xam ne euh, nu ñu men gannaaw yàlla rek ñoom ñoo tax. Euh, donc nag dañuy way ki nga xamante ne moo ma def ni ma mel. <laughs> muy sa waa ji Cheikh Al Khalifa. yaa Cheikhana ya Ahmada Tijaani. Mm, xutbal wujuudi wa nicmatal akwaan. yaa Cheikhana ya Ahmada. حب الوجود ونعمة الأكوان يا شيخنا يا أحمد تجاني حب الوجود والنعمة الأكوان يا شيخ أحمد أيوة تجاني صندوقان فاس مو شيخنا تجاني كتب الوجود ونعمة الأكوان يا شيخنا يا أحمد تجاني قطب الوجود ونعمة الأكوان akwaani ndeysaan Cheikh Sarr yaa cheikhana yaa cheikhana cheikh yaa Ahmada Tijaani xutubul wujuudi wa nixmatal akwaani sëñ Babacar Si nee na cheikhuna Tijaani sa turandoo bu yaroo waru leen a yéem ndax maamam Seyduna Muhammad moo ko yar faama sa maam Serigne Babacar si nee na Cheikhuna Tijaani allah innahu xatmul wilaayati aynuha fa rabbaahu man rabbaahu rabbul bariyati sëñ Babacar nee na sëñ Babacar si nee na sëñ Babacar si nee na billaahi man maa sopp Cheikhuna Tijaani yonent bi imaamam te xam ngeen ne maam day doon sët oustaz Mouhamed sa waaji Serigne Babacar si nee na Cheikhuna Tijaani yaa majmaal bahrayni yaa alamal huda shamsul haqiqati manbaal irfani yabna rasuli wa hibbaawu wa aminahu wa zari wa Cheikh Sidil Ahmad Tijaani yaa aaliya laxtaabi ah. wal axwaasi walawu taadi turan xaw sa na samdaani góor a sa waaji sëriñ Babacar si nee na cheikhuna tijaani talaat lana shamsul huda kusifa duja kusifa duja kusifa duja kusifa duja liman iqtada anil umama mal mubadal marma waxat lama bada rufiat law أعلام شرخا ومغربا شيخ لما بدا لا لا إله إلا الله سن بابكر نينا قطب ومكتوم خفي برزق برق الخفاء لنا الخفاء غواء ana ñu yaakaar Mawlana Sidi Ahmed Tidiane maa ngi way borom Faas borom Marrakech borom Meknaas borom Dardaas borom Daarul Maraya Cheikhey Barzaqul Barabiqi taajul aarifiina mu middi kulli awliya rahmaani billaahi sëñ baa nga faas laaj naa sëñ Babacar ni wax mu ni ma boo demee nil Cheikh Sarr sëñ Babacar nee na la tama waja xawruhu wa yufiidu min ibnil muhaymini baaril akwaani cheikhuna tijaani yuuxun badat tuxil wara bitayunin من كل نائل ناظر والآني شيخ تجار وتدسات أدواؤها وشواؤها وتعم بالأقطار والبلدان بايو سيد الجميل لنا وحوا أيوا ينداو بمردات العليم سيد بابكر لنا cheikh bi mi am juróom ñaari at ci la mokkal alquran comme ni ko yàlla joxe woon jibril mu jox ko sayyiduna muhammad sëñ Babacar nee na waxawaa bi mardaatil alim bi damihi من مقتضى القرآن والفرقان شيخنا التجاني سيد بابكر لنا ختم الولاية ما خفى أمر به ختم النبوة جده والعاني بو خمول شيخ سيد بابكر شيخ صار سمام بابكر لنا هو أحمد بن محمد نجل الوليد مختار سيدنا محمد موي مامم نلي جد أحمد داني سيد بابكر لنا هذا سليل محمد زاسا الظالم حقا أبوه وقدوة الأزمان شيخنا تجاني شيخنا تجاني شيخنا تجاني سيد بكر لنا هذا الذي كان المميد وحائلا شيخ يرب بيت الولاية فاتح البيباني سيد بكر لنا واجو خي ген طريقة بي ديكو تيترو شيخ كو فوتبال واي دون متاي سيد بكر لنا من كان يدخله ينال بشاعة من غير حد laa wala miidaani sëñ Babacar nee na fa salaatu bi salaam yi daawee la ayni naimi wa seydi ayaani ahmada tijaani xutbal wajuudi wa nicmata Babacar Seye ngay tagg Cheikhuna Tidiane nee na ah. ko nal maana ila qalbi min masaya ya wa imana faman ila qalbi min masaya halifa wa innal mana ila kolonel min masaya لخوتك الحمد لله هذا شيخ رباه خير الوجود الذي أعلاه مولاه شيخ ترندو شيخ تيجان شريف لامي واي واي أشدق لفمي góorugi ne rabba bi la xalwa in astaba anana hatta staamu fa ya lallahi man aawo góoru faa maa ngi nii sa waaji sa maam Serigne Babacar yee yaa wa imaana laysa aca def leen ni fii jadu waaw fii jadu waaw ana soppay sëñ Babacar Si loxoy ca fee jadu dootu fi am sama waa dootu fi am Bakar Si jël nam la fii da duwaa Cheikh jaarama Seydal Aji Malik Si fii da duwaa Cheikh kuma soppal Sëñ Babakar loxoy ca kaw fii da duwaa Muhammad Mbay doomi garmi la Mawdoy baayam da bañaayay samaam waalo ولولا بي من تيبي مخنا شيخ الخليفة بابا كرسي جلنا نملة يا ودغنا أنا عرفت الورى شرخا وغربا ورا أراك مثل المنصور في سائر الورى إذا سابق الأكوان يوما إلى الأولى يكون إماما في الورى والورى والورى wal waara Mamadou Mansour Cheikh Mamadou Mamadou Mamadou ayca Mamadou Mansour Cheikh Mamadou Mamadou Mamadou ayca Mamadou Mansour Cheikh Sarr Mamadou Mamadou Mamadou Mansour xoolal ma ne ko madame Sarr araftul wara sharxan wa xarban ورا أرى كمثلي بطل المنصور في سائر الورى إذا سابخ الأكوان يوما إلى الأولى يكون إماما في الورى والورى والورى والورى محمد منصور nabi yi nañu waaj dafa mel ni Cheikh Sarr mu ngi suñu kaw de Cheikh Sarr nar na dugg ci way wi de ah. bu fekkee ne dafa ñëw amul ay awukat. Ah. nga bàyyi ñun ñaar yàlla mooy sama seede ak nga bàyyi ñun ñaar ñu aw. ma ne ko alaaji yow sama carrière nga bëgg a yàq. waaw parce que Cheikh Cheikh mi may toog man teel a bàyyi way ndax boo ma saana dem sama daayira ñoom yaay naan neex baat kenn ku ne da ngay di fa say we seex te kenn mu ne sa baat neex ci yow balaa nga koy xam ngay woyantu ci suuf xadi koo fi gis baat ma neex ci moom te est ce que xam nga ni baat bu naqari ak daal yu xat yooyu dañuy métti laa jël ñii dem xew ñëw amuñu yeneen daal daal yuñ sol seere seen tànk ah man ko seex ah moom léegi man ko seex bàyyil abu. walwaraa bii léegi nag yow. man ñëpp ku dem. pour looy def ma ne ko man maa ngi maa ngi maa ngi dem benn programme mu ne ma boo paree jaaral télé ba. mais waxuma àndaaleel awkat sama xel xaw <laughs> te bi may way nii dama gis arñi boo xamante ne ci man su may way ak gis naa engagement gi. voilà engagement bi nag bi ma añee ba pare la ko perte engagement bi. sax tey da ngaa ñëw di ba yàq rek. engagement bi bi mu añee ba pare. Ah. la ni ma oustaz Aboubacar mooy ñëw. waaw ah. mais bu ñëwee ma ne ko léegi ku koy am. waaw ñun ñaar man ko man moom génn man maa ngi xam ne ma baax. bu ñu ma moom bu dee woon waraat lay may. waaw ah. mën naa ko aw. bu ñu ko mu ngi toog yaa ngi toog. yow bu wër bu dem. sama xarit fi. oustaz nag yow moom damaa gis ne tey moom dafa mel dañ ñoo dëddale. tey tey sama wërum gerte caaf gi yaa ko njëkk a wax ci tele bi gerte caaf la sama wërum gerte caaf gi yaa ko njëkk wax ci tele bi tey oustaz li xam nañu def. man góor du man góor du fi nekk. ak mbaro may aw ñii samay xarit lañu. yéen awleen rek na neex ma rim lan man man da xam na eh. kamis di batal Mansour Cheikh Sarr fi sairil wara إذا سبخ الأكوان يوما أيت إلى العلا يكون خلال حبي إماما في الورى والورى والورى والورى moom Cheikh jël na engagement ci way Oustaz man man mosuma xam ne Oustaz yow yaa ma def nii. Cheikh nag Oustaz dafa am lu mu la jàppal nag. Sass ñàkkul ne am na fu ma jàpp waaw nga dëgg de. léegi yàlla baax na mais fi mu toll nii tey moom euh, comme am naa am ndimbal toog ak samay soppe gis naa samay soppe dimbali nañ ma ci aw bi mais li ñuy def nag mooy euh, tey ñoo ñëw ci page officielle bu Sen TV. mu nga joxe quelque xéewal. joxe ci xéewal yi. mais balaa ñu dem ci page officielle bu Sen TV xam nga xadi nag. Mhm. xam nga Foussine Gueye moom. Mhm. dafa yàgg nekk suñu sponsor. c'est vrai xam nekk nag. Mhm. mais. Euh, Lama Boutique waa tey sa tey suma sama xarit Lama Boutique. Mhm. moo ma jox tussu bu rafet bii. très joli. Euh, Lama Boutique nag mu ngi nekk mi ngi nekk HLM. Mhm. nga tissu bii lu tax mu neex mooy cent pour cent coton la. Mhm. da nga koy sol tàngoor sol ko set mooy fous néega bi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci weeru koor bi. donc Lama Boutique seen numéro téléphone 77 la 203. 64 93. Mhm. As Gueye ma boutique mi ngi nekk HLM. Mhm. waaye tamit sama xarit bi nga xam ne mooy Touba Gadiaga. Mhm. nekki fii ci HLM. Grand Yoff moom moo ma ko ñawal. man a téléphone am di 77 975 31 72. donc euh, jërëjëf Touba Gadiaga kontaan naa ci yow bu baax a baax. xam naa ne xat nga may ba ma ko waxee dafa daal di ñëw ne moo may ñawal pour ñuy mën a toog ci grand plateau waajal tabaski bi. dugg ci page officielle bu Sen TV nag ñu war a maye xar. maye xaalis mhm. maye xartum gën partagé gën a commenté mën a bokk ci teraange yi nga xam ne moom la ñuy joxe tey jii ci Sen TV xam nga D-Média li may wax rek mooy organ de press bi nga xam ni dafay xalaat askanam tabaski ñu indi di joxe xar korité ñu ñu maye ay ginaar bu ñëwee ci li nga xam ne moom moo di Pâques ñu joxe ngalax waaye bu ñu ñëwee tamit ci li nga xam ne moo di gàmm ñu joxe ay paas yi gàmm bu ñu jógee ci màggal ñu joxe ay ay paas yi màggal waaye feebar gi gis ngeen grand bi nga xam ni oustaz Iran Ndaw mi ngi koy def feebar faju gi soxla yi nga xam ne niñ dañ koy xam rentre des classes ñu joxe ay fourniture kon D-Média dafa nekk organe de presse boo xam ni dafa yàgg and ak askanam ci lépp loo xam ni xewle nañ ko kon tabaski bi ñu dëgmal nag commencé nañ joxe xar yi ci Zik FM commencé nañ ko joxe ci Sen TV ni koy joxee mooy 88 628 89 90 ngeen di continuer di woote 24 heures sur 24 wala boog 88 628 28 28 ngeen jot ñu ñàkk ñoo jot seen i numéro téléphone dafay des ci serveur yi donc ci la ñuy tànn di leen jox seen xarit tabaski ñu ñëw ci page officielle bu Sen TV ñu ngi nuyu bu baax a baax a baax téléspectateurs yi nga xam ni wala internautes yi nga xam ni ñu ngi ci page bi di commenter waaye en même temps di euh, partager ñu ngi nuyu bu baax a baax ñoom Mama Ndaw ñoom ñu ngi ñu ngi instant bi ñu ngi connecté wu ñoom Koné ñu ngi leen di nuyu Mariama Sakho euh, Moustapha euh, Moussa Samb amul Amadou job daa fashion moom suñu xarit la yàgg nañoo topp Khady Mbeng mi ngi ñuy topp Ami Ndour ñu ngi lay kontaane Salja ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax ndeysaan Cheikh Fall mi ngi commenté mu ne wallahi Cheikh Sarr li nga wax dëgg la Aboubacry sàmb c'est le choix du peuple ah, nit ñee ko bëggandoo nit ñee ko bëggandoo liggéey bu am solo bi ki nga xam ne moo di maam Bass Sarr nee na euh, ah yal na yàlla sàmm aar te yir xol yi sedd na ñu ngi kontaan bu baax a baax ci waa Grand Plateau Adama Diouf Grand Plateau le meilleur wala bokk la meilleure émission chapeau a vous yàlla na yàlla defal leen tawféex. amiin yaa rabbi euh, kii nag sa turandoo la mi ngi tudd Aboubacry Samb wala Boubacar Samb mu ngi pikin mi ngi kontaan bu baax a baax ci yow Tidiane Sané mi ngi kontaan nee na c'est magnifique donc vraiment kontaan nañu bu baax a baax ci. liggéey bu am solo bi nga xam ne dee ne média mi ngi koy def rawatina Sen TV di leen gunge ci émission bi nga xam ne moom moo di euh, grand plateau xam nga sa askan da leen di fekk ci la nga nekk nga gunge leen ba du ñu yëg coono ba tey am na tailleur yoo xam ne ñu ngi seen bere bu euh, liggéeykaay waaye ñu ngi seetaan Sen TV waaye am na ñoo xam ne ñu ngi ci euh, mbedd mi di jaay xar waaye ñu ngi seetaan Sen TV donc kontaan nañu bu baax a baax ci yéen bu fekkee mën nañu tànn kenn rek Lamine VIP. handicapé yi ñu ngi koy bëggee baax a baax lamin suñu xarit la mu ngi mooy handicapé boobu nga xam ni moom ngeen di gis tout le temps ci TikTok bi mu nangu ndogal bi ko yàlla teg waaye di ci bànneexu di ci bànneexal ñi nga xam ni euh, moom mooy ay soppeem donc Lamine euh, VIP yi ñu ngi lay bëggee bu baax a baax yàlla teg la natt ba pare nga attan nattu bi di ko di ko kafe di ko fowee ba nit ñi di ci bànneexu loolu ak sag la kon nattu bi la yàlla teg nga daal di koy tegoo nangu ko yal yàlla doole la ci suma xarit bi ñu tànn kenn ñu tànn kenn Mansour ñu xool Mansour Diagne mën nga bind Mansour jaañ moom tànn nañ ko Mansour jaañ mi tànn nañ ko ah mais xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga tabaski moom boo xoolee xarama ah. capturé ko balaa Mansour mii di rëcc hmm. serveur bi ah non xanaa tey eh, dañ la laaj dañ la laaj ci xar daa daa bëri femme waaw même serveur bi mën nañ jékki-jékki rek as ah, xoolal ñu foofu wala ñoom maara ñu xoolal ñu serveur bi ci numéro yi benn rek yónnee ñu ko ñu woo ko en direct su ko defee moom it daal di koy may xarum tabaski waaye balaa may romb Mansour mi Mansour Diagne moom numéro téléphone am 77 la 0 74 28 ak la ca tege moom euh, dinañ kowoo woo daal di koy wax ban jour lay jël si xarum tabaskeem Euh, fii ci Sen TV noonu la ñuy continuer rek bu ñu demaatee ba ci kanam ñu duggaat ci euh, li nga xam ne moom moo di page officielle bu Sen TV daal di tànn ñaar ba ñett daal di leen may xarum tabaski ndax it nag fi mu toll nii ndimbal dafa war a gaaw xam nga fi mu toll nii dañu nekk ci dernier virage képp kuy dimbali nit na nga ko teel a jox te képp koo xam ne yàlla dimbali na la nga jëlub teraanga di ko joxe alalu yàlla la booy joxe te alalu yàlla boo koy joxe yàlla lay man Cheikh Sarr mun naa ne lii kat da budget la boo xam ne pour dimbali nit ñi ci xarum tabaski bi ci biir loolu sama sixième sens dicté ma dicté ma faama ma ne ah faama de soxlawul ndimbal la mu sañse fekk soxla na ko mhm. sa sixième sens la yàlla dicté xamal ne la faama mii sañse bi mu sañse sak ak sutura waaye soxla nga ko dimbale nga jékki-jékki daal di xool Aboubacry Samba mu sañse loolu gaare oto bu rafet waaye sak ak sutura lay dundee yàlla téléphoné la ci sa sixième sens ne la Aboubacry Samba war nga ko jox xarum tabaski nga ne ah Aboubacry soxla ko am na ñeneen ñu ko gën a soxla fekk yàlla mi la téléphoné ci Aboubacry xam na ne Aboubacry mi soxla na dimbal mm. donc képp kuy dimbali doomi aadama di jóg di dimbale bu sa sixième sens dicté rek mm. dimbalil kooku te mm. xam ni yàlla yónni na la ci moom ndax yàlla ngay joxe nag ci dimbal googu ngay wax sax damay day faral di dégg ñu koy def débat muy euh, coro gi ñiy bëggante loolu force la ki ngay bëgganteel jox la wala du force man de mën naa ko def force parce que bu doon jigéen jigéen mën na def obligation ku góor ki jox ko bu ko joxul euh, naka la fay demee bàyyi xaj na ci wala. am na ñoo xamante ne fa la ñuy nattee ndax ku góor ki dafa nay wala nayul waaw. genre xam a xam nga naa la xamal benn am na ñuy xaar seen waay yi. Euh, fi mu toll nii Fama dafa def dafa wax question bu am solo. am na solo question bu am solo la xam nga nag kuy ànd ak jigéen ku ne war koo defal. ku ànd ak jigéen ku ne war koo defal nga ñëw ni faama man mi kat nom naa la faama a la maa la raw ngeen di ànd di génn wax dëgg yàlla boo amee yërmande dëgg-dëgg te man koo dimbale dimbale ko te yàlla tax waaye it faamaat du force Cheikh Sarr ni ko force danga ma war a ah, defal ndax fi mu toll ni naa la xamal lenn góor yombatul mhm. te góor ñi ku leen sañaxal ñu bala fi mhm. te ñaata góor ñoo des ci géej gi te <laughs> ah. waaye waaye waaye am góor ñoo xam ni kalaasu Umar Diallo geeg kalasuk euh, maar gi ba ci papis bojaan gi dañuy génne yow bu tabaski jibee ñu tappaas la tappaas la dañ koy faral di def yooyu nag baaxul loolu du élégance jigéen booy ànd ak moom muy sa nawle ngay ànd ak moom mu bàyyi fi góor ñu bëri jublu la même bu am bu fekkee am nga ndimbal su ndaw bu dee fukki junni sax jox ko dimbale ko ko sëñ góor wax na tey waaw fekk say waaykat defal nga leen ba pare xam nga nag oustaz Mohamed Mbaye il faut ñu dellu si man yërmande mhm. faut ñu si dellosi yërmande du ko ne jigéen joo defal rek dalay mbaraan kuy génn ak jigéen gu ne mu jël xolom bi jox la ko féetewoo ak yow wax dëgg yàlla wareef la soo amee dara nga koy dimbale. waaw. waaw tey comme ni ma ko waxee rek Khady euh, tabaski de jóg événement nga gis ne ne que xale jigéen ñi dañuy daal di dem ci marché yi daal di yokk seen taar ndax la beauté moom de la femme moom euh, kenn mënu koo natt fuñ ko fu ko natt rek weesu na fa waaye di nga gis ko xam te ne dafay daal di jël gën a def li nga xam te ne day yokk taaram li ci mel ni ay pose ongle li ci mel ni ay fossiles tatouage yi def rek dañuy daal di euh, béggal góor ñi ku ci mel ni madame Sarr ak lumière cosmétique moom ku ku ko seeti macha allah euh, leer ngay àndal rek ci ci teint boo munti ànd <laughs> boo munti am. man mii sax gis man <laughs> xam naa bu. di sama baam Abdoulaye Mbaye Père di wax. Uh-huh. waxuma ko de waaye ku ko waxal ma jël. Euh, en tout yi xam naa dinaa ko seeti ndax mën na ci teint teint marron comme ñi mu daal ñu yokkal éclat ba tax na doxantu woon nañ tuuti rek dem fële ci HLM gis na ne que jigéen ñi dañuy yokk seen waaye gis nañ ne tamit euh, dafay yokk li nga xamante ne moom mooy emploi bi dafay jàppale tamit góor ñi ci euh, ci fête bi ndax jigéen ñi dañuy dem defaru fa ñoom tamit ñu daal di fay gis seen gagne-pain am na ñoom te ne nañ juróomi fan dañ koy fanaanee ci marché bi uniquement pour taaral jigéen yi dañu seetaan élément boobu noonu bu ñu dellusiwee gën ko yaatal te ku nekk yaa ngi xool noo yokkee sa taax jigéen ñi nekk marché HLM di ko dëggal pose ongle fuddan tatouage bàyyiwuñu ci dara. liggéey bi nag di dox lool te it ñuy sant yàlla ndax clients ñu ngi ñëw bu baax bu ñu sukkandikoo ci kàddu ndongoloo ak Baye Fall mi nga xam ne fekk na leen foofu ca marché HLM ñuy woyab seen liggéey. ñaa yaa ñu leen di posal ñeen dafa te temps daa am benn affaire bu génn boo xam ne muy make up moo nekk nii di crayon bi daa xew xew si jamono ku ko deful rek perte nga. mu ngi dox de parce que noppaluñu parce que boo xoolee cinq jours ba la le matin presque six heures la ñuy xëy balaa ñu fi jóge ay quatre heures lañuy ñuy pause wala trois heures du matin kon mu ngi dox ñu ngi sant yàlla. Amindou. di bu ñëw defaru ba jekk ngir bégal alaajeem événement bu ñëw ñu daal di ñëw dafa carillon pour bégal suñuy waa kër bégal suñuy alaaji rek moo ci tax a ñëw. dëkk bi nag xaalis amu fi waaye teewul soxna si moom. kenn demul mu des. ma ñëwoon pour def pour defar kër yoon. Ah, bi manqué na ah, <laughs> mami itam defaru na waaye moom nee na njëg gi kenn yokku ko. non xaalis amul de. liggéeykat yi rek ñoom ñi ñaan tabaski jàmm. waaye it di ko ñaanal seen ay kiliyaan eh, élément bi bi muy jàll par ba oustaz mu ngi laaj lu garaaw. wallaay ndeysaan voilà ñun boobu xamuñ ko. sàmm. di ah. duñ ci yokk ay yëf. nourriture bu set. Euh, xaw ma ko nag je connais les épices par contre laaj ma épices yi. ah mais xamoo luy fël-fël. ah xaj nañu laaj ci épices yi. ah fël-fël Ousmane euh, Oustaz man mii xaw ma luy fël-fël. Eh, ah bon yéen xamoo leen fël-fël yéen jigéen ñi. <laughs> on connaît pas. ah, ah mais xëy na est-ce que jamono yaay yi maam yi. waaw ah. ah. dafa fël-fël fël-fël kay fël-fël kay. ajinamatu xam ngeen ko. ñi nga xam ne juddu nañ vers les années quatre-vingt. waaw peut-être mën nañ koo bañ a xam. ankay quatre vingt ay da nga naan ñu judd quatre vingt dix jëm kaw pourtant boo de boo demee marché Kermel hmm. marché Kermel yaakaar naa ñu ngi jaay fël-fël ba tey waaw xam nga fël-fël dañ ko daan def ci ceebu jën moo daan dolli ceeb bi guu daan na ko dolli guu mais da ko daan dolli xonqaay bi mu gën a xonq waaw des fois doma daa nga def ko ci loolu loolu la ñu daan wax fël-fël poudre la woon poudre comme poudre la jàng du wees jàng du wees àdduna nag buy dox da ngay ànd ak moom di dem xam naa xamuñu fël-fël bouillon lañ xam ak les épices daakande nag waaw mi ngi noonu xam naa daakande pour <laughs> fóot la dama lay testé rek daakande yëf yi en tout cas Khady comme ni ko <laughs> waxee rek yaay yi lu nekk ñoom itamit daanoon nañ ko def xam naa seen jamono di nga gis ku doon gën a jamu euh, ba mu gën a ñuul Euh, di nga gis tamit ko am te ne da doon taaral fuddanu ci suñu yaay yeeg maam ni mhm. waaye ñun nag comme léegi ci suñu jamono ak ni ñu ko gisee mhm. euh, pose faux ongles yi ñoo fi nekk ak li nga xam te ne moom mooy tatouage yi marché HLM nag la ñu demoon na gis nga euh, mu fees dell nit ñi di yokk seen taar jigéen ñi waaye tam ci institut de beauté yi da gis ñoom itamit sur rendez dañuy dem ba borné dañuy daal di veiller à partir de bu desee ay une semaine cinq jours rek da ngay gis ñoom ñëpp dañuy commencer di def à tour de rôle tellement que jigéen dañuy dem yokk seen taar lii mhm. nag euh, ñamali la rek am na tamit leneen loo xamante ne beneen yoon ma andi ko ci niroowaale bésu tabaski ndax léegi gis nañ ne que famille dañuy niroowaale euh, wuju peccox demain demain nga ñëw ci incha allah euh, waaw waaw pourquoi pas incha na lay neex rek ci nirowaale ndax loolu yëpp ci ci entente la ci ambiance euh, lay daal di doon donc lii laa leen andiloon tey. et ce qui incroyable c'est que ay góor ñoom ñooy faral di gën yëngatu ci pose faux ongles ak mhm. euh, ak tatouage yi. pour te dire que euh, daan doole y a pas de sous-métier. comme on dit li ci li ci des fois nag nga gis leen ñu xaw ko kaas sax ndax dañ leen dee indexé. même si nag liggéey rek leen tax a jóg waaye kenn ku ci nekk boo demee ful ak fay da ngay gis ci moom. Euh, mu daal di euh, taaral jigéen ñi te nag noonu la ñu mënee yaakaar naa ñoom ñoo gën a jub loxo sax jigéen ñi. Mhm. moo tax it ñu daal di choisir lii euh, di ci nuyu bu baax a baax nday Fatou. nga xam te ne ci kër gi sama yaay booy maa ngi koy nuyu waaye tamit nuyu Ndeye Koddu rakkam bu baax ma copine préférée nuyu ñëpp ñi nga xam te ne ñun ñi seetaan. macha allah li ngay indi am na solo bu baax dama ciy gis ay danger damay def jigéen ju def fi ba pare. ma gis ni fii yëpp day daal di def ay ay ay picc xobbeeku waaw mu am allergie uh-huh. damay faral di gis yu mel noonu di ci faral di am ba bii bokk ci non non bii bokk ci te loolu andi nañ ci leeral euh, ci vidéo bi sax am na kenn ku ko wax moo tax it boo ñëwee ñu defaral la boo demee comme genre marché da ngay laaj kooku ndax léegi la ko def ndax produit bi dégg naa bu defee deux heures de temps te changé wuñ ko keneen ku ñu ko defaral mën na laa def futu waaye li ñuy wax nag euh, foo dem rek euh, ceeb boo gis am na tànn. Mhm. di nga gis koo xamante ne day def liggéeyam au lieu que mooy yàq yëf mooy que bu naree changer chaque deux heures de temps encre bi ci biir su ko deful rek lor ay nit ñu généraliser waaye ñi nga xamante ne respecté nañu at bëgg a barke ñooñu nag dañuy changer chaque deux heures de temps ñu def ko ndaxte suñ ko bàyyee mu yàgg rek ak tàngaay bi mooy waral muy def yenn effets secondaires yi. et puis xam nga xam nga ah, mag ñi bu njëkk lañ daan ñoom fuddan bi ñu daan def. Mm-hmm. muy fuddan bi nga xam ne dañ daan dem di ko rocc ci garab bi. nal ko dal di koy war ba mu wow ñu fuddan ci seen loxo ak seen tànk. Mm-hmm. xam nga fuddan dafa am lu bëri lu muy def ci doomi adama bu dee nga koy fuddan ci sa tànk. da ngay dem ba yenn méttitu tànk yi nga waroon am doo ko am doo ay nerf sciatique mën nga cee mucc yu bëree bëree bëri fuddan mën na ko dindi. ci doomi aadama di ci am taar. Mm-hmm. mais di ci am wér-gu-yaram. bi ci tege mooy njamal ciiñ mooy ciiñ mi ci biir. ndam bi nga jam ko day génnee waaw njamal ciñ bi mag ñi mu njëkk dañ daan def njamal ciñ seen ciñ ñu noonu kukk ba mel ne xiinu wax léegi ñun ngi koy def yàlla boo defee njamal ciñ moo xam ni day ànd ay bëñ yu weex tàll day mel na melaxu wax set mhm. leer nañ ñi boo retaanee boo ne Oustaz Mamane Mbaye jox moom lu mu yoon da koy jox loolu day bokk li ci la li daan taaral jigéen waaye ginnaaw taaral jigéen gi daa daan faj parce que ciiñ mi nga xam ne moom la ñuy jam day génnee deret ju dee ji mhm. deret ju dee jooju mooy dëgëral sa ciiñ du xasan beneen bi ci tege sa gémmiñ du xeeñ la cay tege nag ba am ca solo mooy day dëgëral say bëñ dëgg la léegi dañ daan def loolu njamal ciiñ mais Cheikh ñaar yooyu nga tudd yëpp ça a tendance à revenir bu baax baax ci mode parce que ñu ngi gis xale yi léegi dañuy koy delloo bu baax hmm. jàmm bi également dañu koy def mais léegi ci ay institut plutôt que dem ci maire yi ko daan def exactement dañ lay anesthésier voilà def ko ci institut yi comme nu Khady wax dañ lay anesthésier jam la bu dee boobu nga bëgg jamu bi waaye tam am na beneen façon boo xam te ne benn affaire la rek bu ñu jam ba pare defar ko da nga koy sol di ko démonter nu mu la neexee genre yooyu noonu yooyu mën na la indi sax daal mag ñi daal pour dire que daal yi fi ne mhm. euh, euh, moderniser nañ ko améliorer ko ci façon bu boo xamante ne daal euh, boo ci bëgg rek daal di ko ciy def li ma la mën a xamal daal mag ñi daal nañ ko def Cheikh yow bu la gën a def de d de d nu muy toll à la wala mu yem waaw man nag man waaw xam nga xam nga après ah ma xool ustaas yi Aboubacar rek xam nga tey ma la benn affaire liñ naan liñ naan naan kenn ku ci nekk am na flair bu yàlla def ci yow ah. am na ci góor ñoo xam ni dañoo bëgg jigéen ju njool am ñu bëgg jigéen ju gàtt am ñu bëgg jigéen ju xees am ñu bëgg ju ñuul am ñu bëgg ju xeeret am na ñoo xam ne jigéen bu ñu gisee ci nopp yu rëy dañ lay bëgg am na ñoo xam bu ñu gisee waaw laa ilaaha illallaah am na ñoo xam ne bu ñu gisee jigéen ju làmmiñam taq la ñu gën a bëgg ko jigéen ju làmmiñam set dëgg de am ci ñoo xam ne dañoo bëgg jigéen joo xam ne tànk yi daa am ci ñoo xam bëgg jigéen joo xam ne gémmiñ gi daa yaatu am ñoo xam ne dañoo bëgg jigéen ju am ndombay baat kenn ku ci nekk ak flair bi nga xam ne moo ne ci yow dafa mel ne xëy na yàlla mooy composé noonu doomu aadama <laughs> mhm. yow bu la gënal yow yow bu la ah. gënal yow ah? bu la gënal ñu xool seex lim na ne ah. te waxul bu ko gënal dafa lim te waxul bu gënal waaw moom daal Cheikh yow nekk man madame Saara bu gën. dëgg la waaye Cheikh looy taxamtiku. dëgg na deuxième nee na Fama ah. Oh, li ma li la mën a xamal daal li ma la mën a xamal daal mooy. bi ma ci gën a bëgg mooy bu yor jikko ju rafet. waaw yor jikko ju rafet. jigéen bi gën mooy jigéen ji la mat yaay. su la matee yaay rek dina la mën a àngu ci lépp tey loolu oustaz Mamène Bay doon wax léegi nii jabar ji nga takk na la mat yaay ba pare mhm. soo la matee yaay rek dina la dina la moytu lu bëree bëree bëree bëri donc yal na yàlla may ñu ay soxna yoo xam ne dañuy mat yaay ba pare mi ngi doon faaw boobu la boobu laa a bëgg xale bu ñu taaroo rek góor yi lañ moo tax bégal suñu bopp ba pare déjà waaye tamit bégal suñu borom kër euh, tamit bokk na ci bu baax donc bu ñu kontaanee rek ñu kontaan important parce que euh, Fama da nga posé question bu doy waaw waaw Euh, dama mës seetaan am benn waay joo xamante ne dafa tëdd ak jabaram. Mhm. ñu tëdd mais bi mu yeewoo tournée dafa dafa yuuxu dafa daw dafa bëggoon a daw. parce que soxna si li mu teg xef yi mu teg xàmmewul jabaram. dëgg am na. pas du 3 su ma xamoon andil leen ko. am na boo xamante ne comme bale taxaw. su ma mën andil taxaw mais yooyu xanaa doy ci mais yooyu boo yéegee ci Jakarta comme rideau may nga lay mel. waaw. <laughs> may leen ma. noo xef yu rëy nga yéeg ci Jakarta. jaarooru Thiès. Paa <laughs> on se retrouve demain incha allah. <laughs> Cheikh. waaw ñu bàyyi Aboubacry mu yëkkati waat. waaye mu yëkkati jotaay bi rek ñu àndandoo bëggee tey moom émission relax lañ def. voilà waaw mi ngi noonu relax rek Aboubacry loo ñu may ñu jël. Eh, Aboubacry balaa muy kii sax est-ce que duñu def tour tàggatoo nga xam ne moom bu tàggoowee yëkkati rek ñu tëjën tëjën mu goog Cheikh ma bàyyi la nga nga nga ubbi bëgg ak bànneex rek la ñu mhm. am kontaan bu baax a baax ci ñi ñu bokkal plateau bi bëgg nañ ci ñëpp nag vraiment Aboubacry Samb sànq laa ko waaye dafa ni ma magu jàmbur yow loo bëgg ma fekk la ci donc loolu ñu ngi la ci remercier bu baax a baax a baax ñaan suñu borom wéral sa baat yàlla guddal sa fan wéral sa cër te yàggal la fi may wax ne nañuy jàppale suñu ndawi réew ci li ñu bëgg nañuy dooleel suñu ndawi réew ci li nekk léeg nit am na nooy demee boo góorgóorluwul dëgg dëgg da ngay ci yenn yi mm-hmm, mm-hmm. mais abu Sam ku ko xam-xam ne am ku am yar la mm-hmm. ku jeex tàkk ci njabootu maam Cheikh Seydi Hadj Malick la ku bëgg Seydi Aboubacar Sy la donc yàlla na yàlla dooleel la yàlla kattanal la ubbi xolu jaam yi dugal la ci ba nga fees dell di nuyu di gërëm bu baax a baax tamit alaaji góora mi nga xam ne moom it war fakal la bu ko neexoon mu ne am naa yeneen i yu may dox waaye da ko da bàyyi ñëw ak sa rakk ju baax ji nga xam ni moom moo di. Euh, euh, Baro Baro Samb ñu ngi kontaan bu baax di kontaan tamit ci Sass Mohamed Jamil di bég bu baax a baax tamit ci euh, soxna Fama mi nga xam ni bokk nañoo moom plateau bi di gërëmaat bu baax Lama boutique mi nga xam ni moom moom a sañseel nii ci tissu bu rafet bii di Fusnega man ngeen dem jëndiku ko ci HLM waaye tubaa Gadiaga mi nga xam ni mu ngi nekkee HLM Grand Yoff moom it. moom a ñawal ñaw bu rafet bi maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ñaan tabaski bii nga xam ne moom la ñu dëkkmal te yàlla sant na ko yàlla nañ ci yàlla gunge sagal ñu ci suturaal ñu ci ba lépp lu ci war suñu borom yombalal ñu ko ba buñ ci génnee sax dese dara ci suñuy poos salaamaaleykum wa rahmatullah Fama merci à demain. merci beaucoup Khady ça a été un plaisir jaajëfal la bu baax a baax grand cheikh yow di la jaajëfal euh, di wax rek ci Aboubacar Samb ni nga ko waxee le choix du peuple c'est bien choisi. ndax ndaw la xale la moderniser li nga am tamit tamit moom mooy woy bi donc euh, baat bu wér leen lay ñaanal ñaanal la gudd fa nag wér man nag sama xarit nga ma soppe nga maa la bëggal sama bopp ndax euh, li ñu bokk muy euh, Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu rawatina Serigne Babacar Sy sëñ Gora moom mention spéciale moom it fii laa ko def sama biir xool Barou merci oustaz yow it jaajëfal la bu baax a baax Khady joxante dig daje beneen yoon rek incha allah remercier téléspectateurs yi ñu doon seetaan oustaz ba suba incha allah waaw ba suba incha allah xanaa di euh, daanale ci ñaari oustaz yu baax yu ma mhm. fonk lool kenn ki di oustaz Mamour Fall oustaz Mamour Fall ñëpp xam nañu ko bu tëngéej te yaayam nelaw fan yi passé maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom may seetaan moom njabootam yëpp nekk kenn ci man Cheikh ki ci des mooy oustaz Assane Seck bu TFM lay desaan oustaz Assane Seck nit ku baax la nit ku yaru la daf ma wax démb wax ba am solo nee na ma ku war a wax ren war a wax déwén boo sakkanalul say wax rek wax li nga waxaatoon mhm. te itam loolu xam-xam bu am solo la maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax euh, di ko kontaane ñaanal ko moom itam yàlla na bokk ci ñi yàlla suturaal ci làmmiñam mu bokk ci ñi yonent bi di ci turo nuyuwaat ñi ci plateau bi yëpp encore moo xam faama la euh, baro euh, sëriñ góor a ñang góor mii nit ku baax la mm-hmm. Mm-hmm. nit ku nit ku tabe la mm-hmm. nit ku mën a simmi darajaam jox doomu aadama la yàlla xam na ko nit ku mën a teral nit la man mii damay jékk ba ci yàgg mu yónni ma xale yu sawar yooyu te duñu ma xool muy numéro moom ndax mbaax Aboubacar nag moom moom kenn la ci man moom dañuy diisoo ci lu bare bare bare bare dëgër bopp dong mooy catam <laughs> ñaanal la yàlla sàmm la aar la ci barke yonent bi seex nag moom c'est autre chose uh-huh. moom nee naa ko bu duloon teg yow rek mm. bu ma dawoon tuuti mën naa dugg ci dexu erreur gi waaye yàlla mu ngi suturaal ndax day wax ni damaa wéru ci moom bu daa bu ma daanu rek mu daanu te loolu doy na xarit maa ngi koy ñaanal di ñaanal madame Sarr mm-hmm. moom rek kese dong ndax mu ngi may seetaan maa ni ko fi nga taxaw baax na alaaji yëg naa ne ragal na la te rek mooy ndamal jigéen ci góor tabaarakallaahu <laughs> ba Baro moom ma man maa koy tàggul ah Baro mu ngi leen di remercier ah di leen <laughs> dafay sànni xel rek ay ah, yaay tàggul Baro waa Baro mu ngi remercier soxnaam ay gorom ak magam ji toog ak alaaji góoram mi mu àndal ñun ñi ko dalal ak Sénégal yëpp. ma ma maa ko war a a déposé tey point e. police point yooyu e laa lay laa lay <laughs> alaaji góor lay tamaa lay delloo. merci. Adja jërëjëf maa ngi nuyu bu baax a baax sunu sunu mag sunu taawu baay muy imam suur Niang mi ngi seetaan émission bi moom it di nuyu di leen nuyu moom it di leen ñaanal yàlla barkeel leen. di nuyu sëñ Maodo Fall ñaanal ko bu baax a baax bu suñu baay Cheikh Omar Fall muy xalifa bi ca kokki ñaanal ko yàlla na ko yàlla sàmm ñaanal sunu yaa nday saw ma nga madinatul munawwara ci Seydina Muhammad moom ak Chérif Baba ak soxna Fatima ak sunu yaay Xadijatu ak Tabintu ñoom ñi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla indi leen ci jàmm ñuy ay dereti Seydina Muhammad àndandoo dem ziyaara ji rasulullahi ñaanal leen bu baax a baax ñaanal it alxaaji loo sunu xarit sunu lépp nuyu sunu jigéen soxna Xadija ma nga ca Montréal mook boroom këram ñaanal leen borom bi sàmm leen waaye nuyu bu baax a baax alaaji loo sunu xarit bi ñaanal ko yàlla na ko yàlla sàmm sunu xarit ñaanal soxna asu Ndiaye chéri Bamba Ndiaye yaayu mamaa nuyu sunu yaay yaa Njooro jóob ñaanal ko ñaanal njabootam gi yëpp ndax taxaw nañ ñu ba ñu demee Maroc Cheikh jóob mook soxna umul xayri euh, pala li ma jaaxal mooy ngan gi dafa nekk koor xaw tuut sax ma dugg ci biir dokk waaye <laughs> ndax ngan gu neex ñaana leen yàlla yàlla sàmm leen suñ cheikh am nañ mbégte soxna faama am na nañu mbégte Mouhamed Khadija am na nañu mbégte loolu alaaji Aboubacar Ahmada Baro wasalaamualeykum mu ngoog jërëjëf ñuy remercier également ñi ñu doon seetaan joxagum leen rendez-vous demain waaye dañuy bàyyee Aboubacar moom itam mu tàggatoo bu ci noppee rek mu yëkkati ñu ñu ñu tëj émission bi waaw kay jërëjëf euh, soxna Khadija ñu ngi am mbégte di contentement ci téléspectateur yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ci télé bi di euh, Sen TV ñu ci bég bu baax a baax a baax ci euh, bàyyi xel bi ñuy bàyyi xel vraiment di la remercier yow itam bu baax a baax di la beral nuyoo. li tax nag ma lay remercier bu baax mooy xam naa ne sama rakk ji moom nangoo ko ci man rek ah moom nag daa timit ba du wax. Ah. waaw moom <laughs> moom dafa timit <laughs> yow jottali nga ko nuyoom rek. alhamdulilah mais maa ngi beral nuyoon nag nit koo xamante ne nit ku ma fonk. nit koo xamante ne yàlla moo def dama ko bëggal sama bopp loolu moom du tey muy Cheikh Sarr mii. Ah, kii suñu borom moo def ma am cofeel ci moom lool lool lool booy xool à chaque fois dama naan ko sa soxna ku ma bëgg la parce que damay gis ni mu ni mu bëggee soxnaam et puis mu koy nu mu koy nu mu koy suturaalee. Mm-hmm. ah moo loolu moo te ñun dañ ay ndaw lañ yoo xamante ne dañuy dañuy roy ci ñoom ndax ñooy suñu ay grand du dëgg donc bu ñu gisee ñoom ni ñuy téye seen soxna rek ñun dañuy ci kontaan donc moom maa ngi koy wax ne ko daal ñëw bi du du lenn lu dul ñëw rek ngir yeesal sama cofeel ci moom parce que nit ku baax la mu ngi def ak ay ay action yu yu yu yu rafet te kenn du xam dëgg la maa ngi yeesal sama cofeel ci moom di nuyu yi tamit oustaz Mohamed mbay ah kii yàlla moo ñu boole kii bi mu gënee metti tamit bokk na ci ki nga xamante ne bi ma bi ma tourné rek moom laa gis ah bi ma tourné rek mu naan ma defal nii sa tànk defal nii defal nee lenn la may mere mooy daf may woo du ma jot wala mu bëgg ma invité ma am beneen programme <laughs> ba ma ñëwee sa kër nag lan ma joxoon ma sangu xëy na loolu la <laughs> moo tax léegi amatuma jot <laughs> mais maa ngi nuyu aussi sama sœur sama xarit mhm. muy sama soppe Fama ah Fama moom lenn rek la ma bëggee muy Serigne Babacar Sy ah di nit ku baax a baax a baax a baax mhm. euh, moom sama kilifa la may wooyee mhm. li tax mu may wor maal du dara lu dul cofeel gi mu am ci man ngir Serigne Babacar Sy ah waaw waaw waaw dama fekk ci programme ma way Al Amin mu jooy ba pare ni ma way wii saa boo paree leen rek laa la sant nga sañ see ñëw toog ma tourné la ko clip Oh. wallaahi alazim yaayam donc ñu ngi koy ñu ngi koy beral nuyoo ah ñu ngi koy beral nuyoo bu baax di nuyu itam euh, sama soppe bu ma limee rek damay juum mais maa ngi nuyu waa SAS waa 100 pour cent Abou Bakri euh, ak waa VIP Events mhm. ah suma ay soppe la yoo xamante ne dañu tëgg Grand Théâtre mhm. euh, le 15 juillet bii nii ne man maa leen koy wayal incha allahu rabbi donc maa ngi leen maa maa ngi la ci invité j'espère que di nga ñëw. dinañ ñëw incha allah ñun ñëppay ñëw kontaan vraiment maa ngi nuyu waa Mauritanie ku ci mel ni Farmata ah Farmata maa ngi koy Farmata.